ñu ngi sant yàlla di ko gërëm ala neemal warama baara ci ngëneelam yu gën a rëy yi adama di yaa neema mooy ngëneelu doomu aadama yaa amin mi senda yaa neema ak ngëneelu nekk jullit anan kanke kiiramandoon ak def ñu ñooñu yonente bi sallallahu alayhi ak def ñu ay taalibe kala daan kiisara nin dem anen baraka kiilaay ñu ngay ñaanal suñu sang bi mucc ak xéewal min dañen qouran o naata kan ki nga xamante ne moo ñu dikkee alqourane bi en kalan dakkuloo la mu jàngal ñu ko comme nuñ ko war a jàngee en fasarinde ak kotoo la mu tekkiloo ñu li nga xamante ne loolu la qouran bi ëmb olan kirama saybola ana lamantol mooy sahaba yi ak tamit ñun ñuy ñoñom yi naa doon sambala ni mu yàlla yaafa doy mu ñëw yóbbante ñu ne képp koo xamante ne mun nga ko nga wax ko ñeneen o kan imam bakaw foofana loolu moo tax imam bakaw su foofana sénégal gambia mu ngi toog nag sénégal Casamance Sobeya Kunda Sédhiou Casamance Sobeya wala bena ko ano ko kooku moy ñew tekkil leen alquran bi pour ka transférer ka ayelemante pour ñu ëlbeuti kalama bi def ko ci benen làkk muy làkku olof k'a ke suwa ka moy làkku olof bi dalta karandiyola jamano beyalo mom tam na di jangale te jamanoom ñepp ko xam waaye lu ci ëpp làkk soos la dee waxtaanee. man de nga taaliboolu bee yaa mooy ñi nekk taalibe soose yépp xam nañ lu muy wax te jàng nañ ci moom. bii tam nga fooru moo soro fooru moo ñu kiraaw tallulu karanta ji. fi ñu nekk nii am nañ benn forum boo xamante ne dañ ko ubbi. fu mu toll nii liñ fa jàngale ci téere ëpp na fukki téere ak benn. fu mu nekk nii lu ëpp téeméeri junni hadis jàng nañ ko fa. ka karan doo dade eh, luŋo-luŋo a maŋ kondo biri ninety one ka naa bula bii sanji bi mu commencé jàngale lu ko dalee ci eh, ninety one mooy li ñuy wax quatre vingt un nineteen eighty one mooy ñuy wax quatre vingt un boobu ak léegi Ah, mu ngay jàngale te loolu musta dog jamano ni men do jamano bi be ama kama karan do na kawan do jamonoom ñi ñi mu bokkal yépp dégg nañ xibaaram te xam nañ ci jàngale bi nu mu ci toll waaye ñeent fukki fan at yi passé yépp loolu yépp dafa nekk ci jàngale soose rek naataje ko banko kan suwaali be je anin suwa kan moylaano mu daal di seetlu ne si réew mi fii ñi dégg soose ñu ngi fii waaye ñi dégg olof tamit ñu ngi fii ak ñu dégg olof ni man ke surwaade ni mo fuloode man man naka kamoye suwa kan moy na si ñoo xamante ne sax soo nekkul olof waaye mun nga doon pël tey mun a làkk olof dafa manqué subaade pour ñu kama nafaay loo ko daf la kaa si boppam nekkul olof de waaye lim bugg pour njëriñ bi gën a yaatu loolu moo tax mu am yéene bi pour ñu tekk ko tamit si olof anan na ɗon ɗo ma commande omaro fof kono imamu kolol omaro kolol pour kam magal kam na soroɗo surwa kamara moo tax mu oo rakkam ku ñuy wax imam omar Fofana koolooli pour mu ñëw jàppale ko ñu seet ndax dinañ mun a def loolu pour jàppale ko tekkil ko si olof. waaw te kaw te kaw waaw ndax yaakaar ne ne imaam Omar Fofana jàng na te dégg na ñaari làkk yi. xanaa defoon saa kee naa fay. ndax moom imaam Omar Fofana si boppam munoon na koo defal boppam nag. ko Omar bu sori Omar a Dieng ak nga kala Kadiam Suwa ak comme amoon na beneen Omar ku ñuy wax Omar Bun Dieng kooku nekkoon na di jàngale si soose di ko def tamit si olof. waaye karoon naa ñu kan fuloo muy. ndax jàng na te dégg na tamit ñaari làkk yi. foo na naata de suwante asi maa ko ka ko moo tax mu ñëw pour ja eh, ma jàppale ko su ko defee ñu jàppalante ñu ëlbati eh, alquran bi jëlee ko si soose def ko ci olof. affaire bi date la sunkaro. mu ngi nii ñu ngi koy commencé ci weeru koor bi. a baraka ñu ka araba lon la bàyyi ka karam date arabo la. pour ñu barkeelu si àllarba ndax lu ci ëpp sooy jàng dangay ngay ci si bésu àllarba pour barkeelu si. sunkaro téléphone la ñu naan sama. mu mel nii te mooy ñaareel bés ci at bi ci weeru koor. hijira sa jula kenn kéem naan tan naan la. hijira di mooy eh, junni at. ak ñeneen fukk ak euh, ñeneen fukk ak ñaar. te tànn naa euh, mu mel ni te mooy fukk fan ak euh, ñeneen ci weeru April 2020. waaw keroog pour karaake Dakar. mu ne de lii moo nekkoon mbébét bi pour ñu dem defee ko Dakar. ñun kamara ñaa soro si soro. ci kaw loolu ndax pour su ko defee ñu mun a am foofu jot. yaa kamara Kordaano. ci kër ku ñuy wax yaaya kamara ñoom bi dakar ki nga xamante ne moo nekk dakar si géejo waay géejo waay daa bu daan ñoom fekk ñoomee mooy askan bi waaye mu ngi am kër ci dakar 2009 nana sifa ca Dakar Aliou Souane na ko ana fasal. mu ne 2009 musoon nañoo def lu mel nii ca Dakar waaye loolu si kër Aliou Souane la. o tafsir ja janda ay mbool nafa fana. ah tafsir boobu de tasaaroo woon na te njëriñoon na nit yi. ñun doo na mbaa ca Dakar yaa kamara. lii tamit dañ koy def si kër ku ñuy wax yaa kamara incha allah. ka duwa ka de fond ya anen ka duwa ka Omar ya anen Touma. ñu ñaanal yaa kamara ak ñaanal Omar ak ñaanal ñeneen ñi fa. nekk yépp incha allah. bi arabu alquran oo dafe. mu ne tey àllarba bi su ko defee ñu commencé alquran bi. waaw ah, da ñu commencé ko si tafsir bi. imaam Bakawsu ne imaam Omar. imaam Bakawsu ak rakam imaam Omar Fofana. Eh, Kaaba daan ala seen soo mën taa dong la. di ñaan yàlla nag yàlla. ja jàppale ñu su ko defee ñu defee ko nu mu waree. saa bee foo ko kuloon mbir yëpp ñu waxee ko nu mu waree ci wàllu e, leer bi ak wàllu e, tekki bi. ana man la nga kaw na suba kaw. ak tamit ni ñuy waxe si soose ak ni ñuy waxee tamit si olof lépp doon lu leer. kabulaa su ko defee ñu dugg ci mbir mi. awuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. awuzu mbetaan koo ñu ne nii. sëñ bi mu ne mu ngi muslu. billahi alala. ci yàlla. muna shaytan fasin tanka shaytan pour mu muccal ñu ci mbiru seytaane arrajim men kera kurra bum fen seytaane bi nga xamante ne daf ko ne be ala ko mol fula dam do ka ta bay jene mune say soy tuddu mbiru yalla ci ab beureub da ngay fexé nga dakh fa setané bismillah nda ko na fasara fula la ala tola mune bismillah mu ngay commencé tekki alquran bi ci turu yalla arrahman duna nemot yo mom mi nga xamantene mo am yermande aduna arrahim alikaw nemot yo mom mi nga xamantene mo amé tam yermande alakhirah suratul fatiha fatiha fin kon soro wala ci soro bu ñuy wax ne suratul fatiha moy tuddu fi fatiha fatiha ni ya toola fatiha la mu ne suratul fatiha bi tudde nañ ko fatiha wa qur'ano dayal tatel ndaxte alquran moom lañ ko ubbe waaye to siara faaye too tansi mu ne turum turam bo na e, eh, turu yi nga xamantene ne dem na bo fukki tur ma de kan ñen do ma tooti mu ne pour gatal mbir bi li fatiha tamit si turu yi la bokk suratul fatiha da jira kila kam madina mu ne suratul fatiha de bi muy wàcc ci kaw yonent bi ca madina madina la ba doolu ko a jeta kila kan maka waaye ñenn nii dañ wax ne ci eh, màkk la wàccee doolu ko a jeta si ñaafu la ñenn ñi wax nañ ne wàcc na ñaari yoon ñun kuma sabole futa ji mu ne dafa mel ni ñett kàddu yi ñetti wax yi ute ñoo fa am a beetoo mu ne yëpp tamit dëgg la e kana fo doolen tuñaate doomanke mu ne yow déglukat bi bul wax ne bee mooy dëgg wala bii mooy dëgg mu ne yëpp dëgg la Euh, bisimilah. mu ne bisimilah. a fatiha fɔlɔ ala mu ne ñu ngi commencé fatiha si turu yàlla. arahman. mu ne arahman. duniya neema bankeeroo tiyoo. mooy ki nga xamante ne moo yore yërmande adduna bu feeñ. arrahim alkiyama neema nun diŋo tiyoo. mu ne arrahim mooy yërmande bi nga xamante ne dafa nëbu ca allahira moom yàlla ko amee. arrahman duna nema lokoron mario mu ne arrahman mooy adduna yërmande ki ko amee te mu leer arrahim alikaban nema kere kerlon mario mu ne arrahim tamit mooy yërmande yàlla bi nga xamante ne daf ko am ñum ko jagleel arrahman duniya nemoɓe banquerin mawolɓe kajo ana mawol kate ñinin mu ne soo déggee arrahman mooy eh, yërmande boobu dafa feeñ ba ñëpp bokk si loolu moo tax ñëpp di ko ut doo koo kee yeejoo nen karaw faata ñaa baara kene baa mu ne soo liggéeyee ñu fay la su weer bi dee ñu fay la ko loolu yaa ngi koy gis si lu leer dara na bussi arrahman dunaa neema loo courant tiyo maari ma alalte mu ne arrahman mooy li nga xamante ne dafa ëmb eh, yërmande yàlla bi ci al àdduna bi fii loolu boromam mooy yàlla ni simo kafiro kafiro kafiro mo kendo kafiro kamo be la loko mu ne jullit mun na koo am yéefar mun na koo am loolu dafay mat ñëpp arrahim alkiyama neman nun da wata mo alalte mo ne arrahim mo yermande yalla bi nga xamantene dafa nëbbu ci allahira alkiyama neman ba be baro na wala na ñu la man siya mo sal day e sun day e bi kaa gisaay mu ne yermande bi nekk ci alakhirah bobu dafa nëbbu mun nga julli gislo sa pay nga or gislo sa pay arrahim alkiyama neema kere kere na mo alalte ada kera ni misi moo k'a kaafira bi ka son mo ne arrahim mo yermande bobu dañ ko jaglel rek ñi nga xamantene ñoy julliti ak ñi nga xam te ñooy wayu gëm yi. wala bisimilah la aaya foro. mu ne loolu mooy aaya bu njëkk bi mooy bisimilah. loolu ko bisimilah rahmaani rahiim amaan kee aayaat. ñenn ñi wax nañ ne de bisimilah rahmaani rahiim du aaya. loolu ko aayante naa man kee Fatiha damma. ñenn ñi wax nañ ne du aaya lu dul rek ci Fatiha rek la nekkee aaya. loolu ko xam ne Fatiha foofu aayante. ñenn ñi ne wax nañ ne si Fatiha sax du aaya wala na aya konte la alquran no e ñoo sabaji motax ñi konte aya yi ci fanna bobu am nañ ci wote ko fi ma al makkiya uddul basmala siwahuma ula alayhi udda lahu e ko maka karanna wala ibn kasir ñu ne ñi nga xamante ne ñoo jàng ci makka mooy comme ibn kasir kana karan na la imam warulo ibn kasir mo kilente makan ko la mu ne jàngkat yi alquran juróom ñaar lañ waaye ibn kasir bokk na ci ñooñu anen ko fanko la ko na karannaalo mo sala ak ñi nga xamante ne ñooy waa kuufa seen jàngkat alquran yi te ñuy ñetti nit wala asim te ane hamza ne kisaa yi mooy asi ak hamza ak kisaa yi wala ka konte bisimillahi rahmani rahim konte fonction aayole ñoom de dañ dee konte bisimillahi rahmani rahim pour taxawal ko mu doon ab aya. ni oke siratal lazina ne amta alayhim ibe ka wake aayote su boobaa suñ defee loolu siratal lazina ana amta alayhim boobu duñ ko dee def aaya ba neman bismillahir rahmanir rahim kon da fansun ayodi waaye soo kontewul bismillahir rahmanir rahim def ko ab aya siratal ladzina an'amta alaihim ko ke ayodi siratal ladzina an'amta alaihim boobu da nga koy def aya waane be be kambe da aya warula la moo tax ñoom ñëpp d'accord nañ ne de fatiha juróom-ñaari aayaa la. bisimilah maa ati amankaati e ñëwaale wu. su fa nekkee bisim eh, mu ne bisimilah ko wala nekkut ko loolu de uute bi foofu la nekkee waaye juróom-ñaari aayaa rek la. naa mankaati ni ma ni amankaati oto e bisimilah rahmaani ni aayande ila e fo balaa mi la aaya waruloo naasi. mu ne bisimilah rahmaani rahim su nekkut aaya bi tamit sa ñakka wax bisimilah rahmaani rahim loolu ñakkuta matal juróom-ñaari aaya. saa ni a kontaati fana. ana bi aaya waroo la soro ko suñ ko fakkontee tamit ba léegi juróom-ñaari aaya de moo nekk si sa saar bi. voilà man saloo tiñaan. mu ne te loolu yaa ko benn julli. kama ni mu man saloo dara bisimilah rahmaani man kay aaya kelen bandu fatiha ba. maanaam melul ne soo jàngut bisimilah rahmaani rahim si fatiha bi si julli dafa mel ni da nga wàññi aaya si fatiha bi. bisimilah a kana soora dati ma. mu ne de bisimilah daf dee ñëw si commencement soora. nin sora kuro be dadda kila ka ko na ala ko bismillahir rahmanir rahim ala dati ni suñuy door ab sar yonente bi daf de wax ne de doore len ko ci bismillahir rahmanir rahim atakat la jila mo bi da fay nek di wacc rek soro soro datu la jibril naka jila manam aya bu ne wala soro bu ne su ko jibril di wacce jibril da fay indale bismillahir rahmanir rahim anaka ke setan bayron daf de nek tammi daqe kay setane anaka ke baraka sotoron daf de nek tammi Eh, pour mun a barkeelu ci moom. waaw ka sɔrɔ bɛɛ da la. moo tax dañ dee commencé sɔrɔ yëpp ci bisimilah rahmaani rahim. ne sɔrɔ de ko bɛɛ dɔ la. su nekkul mbiru saar tamit dafa mel ni jëf ju baax ju ne dañ koy dooree bisimilah rahmaani rahim. waaye bi doo dee àggali. ne bee sooy naan ne bisimilah. dɔnkɔrɔ ko lekk nga ne bisimilah. ko bɛɛ dɔ ju baax ju ne da ngay wax bisimilah. waaye waaye sooy commencé saar. i b'a ngay wax ne bisimilah rahmaani rahiim. alhamdu. alhamdu tento mu ne sant ñeel na yàlla. lillahi bi alay. maanaam sant ñeel na suñu borom yàlla. rabbil alamin daa sonn bee maari. mooy ki nga xamante ne mooy e, boromu mbindeef yépp wala aya fulan mu ne loolu mooy ñaareel aaya bi. arrahman ati leen dinaa ne moom maari. mu ne e, arrahman mooy yër. Eh, doomu aadama yi ci àdduna bi. arrahim alkaman ne moo maari. mooy tamit aji kuy yërëm nit ki sa àllaaxira. aya sabanjam. mu ne mooy ñetteel aaya bi. maaliki yawmi diin. maaliki yawmi diin. maaliki yawmi diin alkiyama moom yàlla mooy boromu yomal qiyaama. maalaki yam dina ñoo jul joolon man sama alal moom mooy borom kii pay bisu eh, penc isi malik isa saba isa saba baliya maliki ole ko malik mu ne malik mun nga koo xëcc ma maliki mun nga koo bañ a xëcc otuma wala aya naani jàng mu ne loolu mooy ñenenteel aaya bi iyaaka ite ala dorom iyaaka mu ne yow suñ borom naabu doon beetale batu la yow rek la jaamu wa iyyaka idoron iyyaka yow suñu borom nasta'inu be de mara ñu netale ci yow rek lañuy sàkku ndimbal aya loolu jaw mu ne mooy juróomeel aaya bi ihdina isin kandandi mu ne nag ñu texel asirata silola ci kaw yoon almustaqima si loon be telindi muy yoon bu juub aya ko woro jam mu ne mooy juróom bennal aaya bi sirata allazina be molla siloole la mu ne de ye yoonu ñi may wax nii de ana am tay neemata mooy ñi nga xamante ne ñooñ nga defal ngënal alayhim moolu mel ma ci kaw ñi nga xamante ne nga teg ko ci ñoom am na be mu nen kilaamoo ni mo ñi ma mooy e, yonente yi ak nit yi baax yi ak e, e, nit wàll yi daal gayril magdubi man kam faatoolu foofu mu ne waaye wax ma ñi nga xamante ñooñu nga mere de. alayhi neɗɗo kam fara men no kan. mooy ñi nga mere seen kaw wax ma ñooñu. wala alyahudolu. mooy alyahudi. wala jaalina nen filibantewlu. mu ne uh, uh, tamit wala mu doon ñi nga xamante ne dañu réer. wala nasara. mooy ñi réer mooy nasara yi. waaw sila sila saba la fojaa. mu ne dafa mel ni yàlla wax na fi ñetti yoon. kili netti linda. benn yoon bi de moo jub. annabi yow moom la silo. mooy yoon yonante yi. yoo la taa. saxaba yi loolu a la taa. taabi lañ jël. ne Alpha Kende ko ak kilifa yu baax yi màgget yi paase yépp loolu lañ jël. jëlaat fula ñaar bee jaww yaatu. mu ne ñaareel yoon bi de yépp a yaaxu. jaww a ñoote. te waaye nag dañ gën a yaaxu wante. juus wala ne juus yi alyahuud yi. wala jaww yaatu ak bédé a eh, la silo. mu ne beneen yoon bi bon bi mooy yoonu nasaara yi. juus wala mën na bulaa daan mooy ziif yi ñi nga xamante ñoo toppoon Ablaye Moussa. musa irin kilana bi yonente bi ñewé nonguñu ko top nasara a men bulala nabi isa no mu ne nasara yi de moy ñi ko ni soro wala fatiha soro mu ne so sar bi de moy saru fatiha ni ya futandi mu ne soko matale safo amin da ngay wax ne amin fo ñun duwa men kera je pour le ñaan biñu am ni ci fatiha ala so duwa jaar su ko defé yalla nangu ñaan yoyu amin amin mu ne yal na yàlla nangu ñaan bi kaa ko kaa ko sutiyandi mu ne pour gàttal ko ɓaye kam fula foolo ndax ñaar wax kii la kallaama la wala kam mbaa sutiyandi mu ne ci kaw loolu dinañ gàttal siri bi soora koro mu ne ci ñu dem si beneen soora suratul baqara mu ne fi ñuy dem ni muy suuratul baqara ni mu ne nag bu jigéen de eh, maanaam histoire moo nekk si lii amonda ni solo kuma furaje dafa mel ni wax nañ fa mbiru nag kissa doo be ñaar dafa am kissa bu fa nekk waaye mu ngi si kanam wa na ya tola soodu bakara mu ne loo moo tax ñu tuddee ñu ne suratul bakara bismillah nga fa ala tola mu mu ngi koy commencé si turu yàlla arrahman dina neemoti moom mi yërëm euh, jaamam si aduna arrahim alka neemoti ak moom mi yërëm jaamam tamit sa alaxira mu ne alif lam mim wallahu a'lam bi muradihim mu ne yàlla moo xam tekki bi aɗa ñi soro soro bakara ñi mu ne fekk nag soora bi muy suratul bakara adira ma adira madina madina la wàccee ala ayo kondo mu ne aaya yi yëpp keme fula tan dafa nekk ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ala kalima kalima men beje mu ne kalima kalima yi fa nekk yële saba anen keme keme ñetti junni ak benn téeméer xarafol men baa mu ne xaraf yi fa nekk nag loolu moo ne loolu anen keme loolu. ñaar fukki junni ak juróomi téeméer. bisimilah rahmaani rahiim. mu ne mu ngi dooree ci bisimilah rahmaani rahiim. ka soro da de baraka kan ala toog. ñu de commencé bi ci barkelu ci bisimilah rahmaani rahiim. ala aya foro. mu ne aya bu njëkk bi. alif miim. muy wallahu miim. ala ko doon. mu ne yàlla moo xam li mu tekki de. ka fo hurufu tahajji mu ne am na ñuy dee wax ne hurufu tahajji kaate xarafu kilen kilen kala maanaam da nga ko dee jàngee par xaraf itaa fula alama doo wax de alama de ebe alifuf kara na fay da ngay jang alif bernal ko ya lam fa fay nga jang lam tami ya mim fa fay nga beral tami mim bi alif lam mim da ngay wax alif lam mim ako do hakke ko mu ne lim tek deug deug yalla rek mo xam lolu ibn abbas ko be qur'an to mu ne ibn abbas mu ne mu ngi ci alquran ako kiiti naane mu ne ñenenti atte londi siifaa naane maanaam ñenenti façon xam-xam londoo dobe je ala dammaaloo lo am na benn xam-xam bo xam yalla rek moko ko xam londoo do je lon na bal doron amna ben xam-xam bo xamantene borom xam-xam yi re ñoko ko xam londoo do je karan naan din salo amna benen xam-xam bo xamantene ku jang tout rek dang koy xam londi do je hani man kara yo lon amna benen xam-xam bo xamantene so jangul sax dang koy xam loolu men ala dam yaa long mu ne xam-xam yi nga xamantene yalla rek ñàkk ko xam. alif laam miim naa si faale boole mu ne alif miim yooyu ci la bokk. ana alafaw xaqiisa ne alikiama ne kabro la ko. ak yàlla ci boppam euh, nu mel ak boobu noonu yàlla rek a ko xam. zaalikal kitaabu. mu ne mu ne mu wax ne téere bii. zaalikal kitaabu ci kitaabu. mu ne téere bii nii. laa reba sikka mu ne amul benn sikka. fii ci kitaabu. si téere bii nii. ne ko zalikal kitabu kitabu mun so wa he zalikal kitabu tere be lawhul mahfuz laa ko mu ne boobu de dafa mel ni lawhul mahfuz la ñuy wax mooy àlluwa bu mag bi nekk ci aras. laa reba sikkata fii wala balad. mu ne eh, amul benn sikka sikka boobu de. fɛn fɛn bɛ safiri jaabe kel. ndax lépp lu fa yàlla bind loolu lépp dina am. ne ko zalikal ñu qur'an. mu ne soo ne zalikal kitaabu suñu alquran bi. laa reba bu nekk ci alquran bi. rabi leen jaa fo jàllale bɛ fure mi na jinati woon naa. mu ne lu ko dalee fuñ toll nii ba bañ a àgg si minal jinnati wan naasi. kuma kuma bi naa farajee. bépp kaddu bu ñuy ñëw wax foofu. sikata bu fa nekk lépp dëgg la. sikata jaa ala laa bee. mu ne amul benn moo wax lépp. ala mu tooñaati. mu xibaar yi dëgg la. ala kiidiyol tile. te aate yi tamit jub lañu. kanaa sika fenn fenn. mu ne bul Musa am benn sika ci yii. ba ba àgga si minal jinnati wan naasi. mu ne fiihi. a bee kitaaboo. mu ne mu ngi nekk si téere bii. Hudaan. Hudaan Kando Bégué. mu ne jub eh, mu fa fa. lil muttaqina. ci way ñi gëm yàlla yi. Hudaan. Kando Bégué. mu ne jub eh, mu fa. mooy texe mu fa fa. lil muttaqina ala ñaata la naal mooy ñi nga xamante dañ ragal yàlla. allazina aya fulanja. mu ne ñaareel aaya bi mu ne. allazina wala moolati. mu ne ñooñu ñooy nit yoo xamante soro lañu alif laam mim doolu kaa ke aayoo doolu kaa ke aayoo mu ne saar bi nag alif laam mim bi ñenn dañ ko dee def aaya waaye ñenn duñ ko dee def aaya xanaa ko anoo saaje doolu yaa moo tax da nga dee gis alquran ñenn def ko aaya waaye ñenn duñ ko def aaya xanaa ko anoo la aayool tumandoo konte laal si ñëw daan doolu saako keme doolu ko keme ne kili misaal fi moo tax mu ne soo xoolee si konte aaya yi yenn saa yi ñu ëppalante ñenn em si téeméer ñenn euh, passé téeméer bi allazina walla moolu fii mu ne ne moy ñi nga xamantene ne yu'minuna e ka ñom gëm nañ bila gaybe non ndon li nga xamantene mo moo e ñama ala jebe sonna manam gisuloo gisuloo yalla wa yang ko gëm te gisuloo àllaaxira yang ko gëm kii mun a salade ka salo lon di dañ de taxawal julli ka kaakaa waatola kaakaa ka di ko def ci waxtam diko def tamit ci numu waré o même ma anin feŋ ak li nga xamantene ci ñom razaqnaa mu ngi harjee men na yàlla wërsëgee na leen ko yoon fi ku ji dinañ ci génnee asaka yoon fi ku nekk ji dinañ ci génnee sarax yoon fi ku nekk dépense ok dinañ si dépassé eh, eh, eh, lu am njëriñ aya mu ne ñetteel aaya bi wallazina wala muluti mu ne ñooñu ñooy ñooy nit ñoo xamante ne yow mi nu dañ dee gëm bima ma li nga xamantene onzile men jendi mom lañu wacce wàccee. lay ka kare da kii laa kan. ci kaw yonante bi. o ma ani fɛnw. ak lenen li ñuy gëm. onzile men jendi lu ñu wàccee tamit. min qabla ka jannata kila kii yow yonante bi di ñew da da kuran wala mu ne gëm nañ alquran bi. ani tawraata ñor. gëm nañ tawrata anen kitabu tooma. gëm nañ tammi yenen tere yi. bil akhirati alkiyama. te alkiyama tammi hum tolu ñom ñi nga ñi gëm yii. yoo kii na ne dañ dee am ngëm-ngëm ci alaxira wala aaya naa ni jam mooy ñenentel aaya bi limaana la tonkon mu ne ponk yi iman tonkon woro la mu ne eh, juróom benn ponk la ay doo saata je mu ne am na lim ci lim kala ala gëm yàlla. kala kiilaa la. gëm yonante bi. kala kiilaa mool la. gëm yonante yëpp. kala jënd kitaaboo la. gëm tamit li ñu wàcc si téere yi. kalaa alkiyama la. gëm tamit alaxira. ñu mel ni maanaam tuuti. mu ne yii yëpp bokk na si ponk yi. wulaay iman. wulaay ka ñu man du ñu maa moolu. mu ne ñii nga xamante ne ñoo amee façon melokaan bu rafet bii. ala hudan ñu lebe kan doo kan. ñoo de ñoo nekk ci kaw texe. min rabbihim min bade maade o maako li ɓaaye ko si seni borom wa ulayka ñin mankude ñin ma ɗum keel mooy ñi am melokaan bu rafet bii nii hum ñul fan fan ñoom si seen bopp de almuflihuna ñul leen kañeeda ñii ñooy nit yoo xamante ne dañ texe loolu mu ne loolu mooy juróomeel aaya bi suratul bakara suratul bakara ñi ñi suratul bakara mool mu ne suratul bakara de séddale na nit yi si ñetti xaaj eh, ki gëm yàlla wax na ñoom naka lañ war a gañee mu ne ñooñu ñoo texe anen kafiro way waxna na tamit si ñi nga xamante way way wedd lañ ayolu fanaafo ñoom tamit wax na si ñoom anela kunnaku ya ak tamit nu ñuy texed yi anen lu ak naafixe yi tamit ayolu fanaafo wax waxna ci ñom tamit anela maña jaw ya ak sen jëfin yu bon yi anela xalako ak tamit naka la ñu alakoo aya loolu fa aya naanu fa limaan mo la ko mu ne wax na ñenenti aaya ci mbiru ñi nga xamante way gëm lañ sa kafiro la ayo mu ne fu mu nekk ne mu ngay ñëw ci aya yefari innal ladina mulu minnu mune niti nga xamantene kafaru kafiriya ñoom ñoo weddi un sawa'un abekayan mune emna si ñoom alayhim umulu kam ci kaw nit yooyu a anzartahum yo kafirol masilandi nga waar ñooñu yéefar yooyu awlam lam tunzir walla me silandi walla ragal loo leen laa yowna resal mu ne ñooñu duñ gëm abu jahli ñoom mu ne ñoom abu jahli ana fi faalu mata ak ñi mel ni abu jaxle ala ko men takkila misilimoto yàlla ñi mu wax ne ñooñu mus a nekk jullit kawandoo mee keenoo mu ne ñooñu de pour nga waar leen def leen defu leen jullit de waaw de Mawla Dakila Missirah Mor. mu ne waaye nit yi duñ nekk jullit. dafa gaa kawan daal bale kawan. loolu ñàkkut de boo tax ne waarekat bi du waar nit yi. ah danañ laa kii la baax foo yaa faale na foo ma. ndaxte su àllaaxira jotee dinañ wax eh, waarekat yi ndax wax nañ leen wala waxuñu leen. e kana fitna de naa maa njare ba su moo kawan di même ba mu demee. mu ne bul loo nit ki de su fekkent ne jaru ko waaye na nga waare su fekkent ne nit ki dina dégg wala sax mu a toog. ah bakara ba matala ataya kawan do kere matala moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam abu jahl dina nangu waxam wala du ko nong wala abu bakar dina ko jël wala mu ñaak ko jël loolu terewut moom def def waarem mu na ñu man kawan do moy ne li tax ñi dégguñu waare aya waro aya waro ñote mata mune jurom bennal aya bi matna aya ko don katamallahu ala len tikiro mune yalla mo def kaste ala kulóobee sonn moo kan. ci kaw seen e, xol. E, sonn mooy sonn bi daa yàlla dafa jël seen xol bi mu daal di kaste. moo tax nag eh, waare mënul woon a dugg foofu. voilà sama ne tuloolu kan. mu ne tamit seen dégg-dégg yi tamit yàlla daf ko kaste. wala tuloolu mais kéema la mooy eh, eh, nopp yi nga xamante ne loolu la ñuy ci seen xol. alors fana yàlla dafa jël loolu noonu mu kaste ko ba duñ mun a dégg. voilà abusaari ma ani sonn ñaalu kan. mu ne tamit seen bët yi nga xamante ne ci xol bi loolu la ñuy gisee. saawatu muuralam.

ba yàlla dafa jël muurukaay muur ko. ala ye muura la la la ka waa na meje. yàlla dafa jël muurukaay muur ko si seen bët yooyu noonu ba duñ gis. wala mu mu ne mu ngi nekkal ñu ñeel na leen. azabu bu kan kati maanaam mbugalu yàlla. azima warta baa ba mbugal bu tar moo leen ñeel. wala aya waru la. mu ne loolu moo nekk juróom-ñaareel aaya. kaafiroolu fo. mu ne wax na yeefar yi. la yan wax na tamit nu ñuy mbugal yeefar yi. aya fuloor ci aaya yi nga xamante ne mooy bu eh, yéefari nii aya kotam mu ne beneen aaya na duna naafikol lakko mu ne loolu dafay ñëw dugg ci nitu naafixe yi a siyaata aya tànnin fen mu ne loolu de ëpp na eh, fukki aaya ak lu teg ala ko o minan man moo doolu be muulu kono mu ne yàlla wax na ne am na yenn nit si nit yi yaa kuulu ɓe kaa ko ñoom de dañ dee wax ne a naan tol sontan ñun de gëm billahi alama gëm nañ yàlla bil yawmil akhir al kiyama don ñu dañ dee wax ne gëm nañ tamit bisu penc o ma ahma imanke mu ne yàlla nee na ñoom nekkuñu de de momine man son nekkuñ ñu gëm de aju gëm de aya seen jam mu ne loolu mooy juróom ñetteel aaya yukhadi'una allaha mu ne ka ala la jam fa mu ne dañ dee wor yàlla be ala fere kan dañ dee naxante nax yàlla be ala nene kan ña dañ dee wor yàlla yukhadi'una allaha ka ala la janfa dañ dee wor yàlla karañaa do be yakhda'una mu ne am na beneen jàng kat bi ne yukhadi'una yakhda'un wallazina anim moolu. mu ne am uh, ak nit yi nga xamante ne. amanu mel na ala la. te dañ gëm yàlla. wa maa yaxda'uuna. mu ne ñoom de nekkuñ di wor kenn. bi ka ala janfaale. nekkuñ di wor yàlla de. bi ka limaan mool nee na. di wor ñi gëm de. bi ka moo janfaa. nekkuñu di uh, janfaa wala wor kenn. illa anfusahum. lu dul rek seen bopp. foo foŋ illa anfusahum foo foŋ lu dul rek seen bopp. wa maa yash'uuna man soddi wala. waaye ñoom de uh, yëguñu loolu. dimbali ci seen bopp. mais naa fi jaasaw. mu ne li waral mbiru naa fexe de. di leen kiraan ala madina. bi yonente bi sallallahu alaihi wa ñëwee madina. kabila fula la jëm. ñaari kabila ñu ngi fa. awusaw ne xasrajoon. awusa yi ak xasraj yi. wala moom madina la sax. ñooñu de waa madina lañ. kaabila saba doo mu ne beneen ñetteel kaabila bi almu tubaabool ñooñu tubaab lañu alyahudool ay mooy alyahud yi banu nadirool banu nadiri banu kaynuka banu nukaynukay banu kurayza banu kuray walla mu alyahudool kaabila saba ñoo nekk yahud yi seen kaabila ñetti kaabila yi beneen arabol sonda kilama madina mu ne bi arab yi ñëwee gëm yonente bi ca madina yaaka ñoom dañ ko def forcé moo bébé tara kilal ko ñoom ñëpp dañuy nekkal yonente bi ne mu madina arabo soo nekkee arabu madina non de takul nag. su dul la su dul nekkul loolu doo doo xaj ci biir Madina. o oh, kan loolu sonda. ci kaw loolu ñenni gëm nañ de. àndoon ne man song. Eh, te xam nañ ne ñoom suñ gëmut. nga fa mum musulmoos. nga wax ne yow jullit nga. sinaan mbay. mun nañ la mun nañ laa dàq. sinaan faa. mun nañ laa rey. mun nañ jël sa alal. nga fondala doro. nga wax rek si sa gémmiñ ne. nga sali fee doro. nga julli euh, jullendoog ñoom rek. ba yéen dara kaafira waaye ñoom de yéefar yaa bi nga xamante ne ci loolu lañ la fekk. a kan. yow de ci loolu rek ngay ne. am anen taw foo su fekkente ne sax doo ko mun a wax. wala wala du wala du wala du la dañ dugg si islam ngir loolu. et fa ñu ne ñoom la ñuy wax. fa ñu ne naafeq ñoom ñi façon nit yi lañ dee wax ne naafeq lañ. santo musulmaan bi. mu ne ci kaw de jullit yaa moo fa nekk. duuma kaafira bi. waaye si suuf lu ëmb loolu moom yëpp. yéen fa yàlla sondomo ne kullooro kaafiro. bi ak si lu nëbbu ci moom lépp yéefar pire la. waaw monsieur keneen baa doon kii laa ñaar sax feeñ si moom ci kanam yonente bi daal lépp dina def boppam ne moom muslim xàqan la janne koo bi ala nañ kiilaane mi simolu janfaa mu ne ci kaw fii nii place bi lañ bugg ne e, war fa yon yàlla ak yonente ma ando nii saldan salda kiilaa ko ndax suñ e, jullee ñun ñëpp ñu julli si gannaaw yonente bi bidaa kilan naa beetaa ñuy dem xeexi ñun ñëpp ñu ànd ak moom yow waɗana kilon kan waɗa fala jam ñu ñu e, noddu noddu mu njëkk yow nga noddu ñaareel noddu moo tax kenn du wax kenn ne yow doo jullit ba luuma waaye si suuf nag kaafiroo yéefar lañ ana ala ko kéet fan na jàmfaa mu ne moo tax yàlla wax ne dañuy jàmfaa seen bopp mooy dañuy war seen bopp wala aya mu ne la moo nekk juróom ñenenteel aaya fii mu si seen euh, seen xol yi fii qulubina bee sondamoo ko mu ne mu ngi nekk si seen xol yi maradun kuuram euh, feebar moo nekk si seen xol yi naafikiya anin sikoo kuuram mu ne euh, feebaru naafex ak feebaru sikk sàkka wala bee sonn mom lolou mo nek ci sen xol yi. fa fazaadahumullahu ala nate kafu. mune yalla ñew yokku. maradan quran doo la. beneen feebar ci seen kaw febar yoyu ala ka kafu lolou mune yalla mom da fay yokku de. ne daf la bett yàlla. soo buggee ba. asa sonante mun na la koo yombalal ne courant soo nekkee nit ku bon tamit asa sonante mu yombalal la lu bon loolu beneen courant bi doo sonn moo tax ñoom bi ñu amee feebar si seen xol yi foo ka ala ba bañ dem bay mun a wor yàlla ala ñaakaa si yàlla tamit du mooyu leen la naa fi jaaka si seen si kaw seen naa fexeyaa muraaka mu mu ëmb leen ci loolu wala courant ka moo tax nag seen feebar bi gën a yokku wala hum a bɛ naafikoo li mu ne mu ngi ñeel ñi nga xamante ne naafexa lañ azabun yankankati bee maanaam mbugeel mu ngi leen a ñeel alim o dimi baata mbugeel boo xamante ne dafa métti de bi ma fanga saabu la eh, ci kaw li nga xamante ne kaanu i kera ñoom nekkoon nañ ci kaw yooyu yak ribu na yewul yaa mem di ko di ko fenloo kara ñaafula baala mu ne ñaari jàngin mu ngi ko amee ye za bambandi wala e ma bambandi mu ne eh, benn nga za bi nga dëgëral ko wala ña oyofal ko yakzibuna yakzibuna yukazibuna yukazibuna ni yaa karan yakzibuna mu ne soo ko jàngee yakzibuna lawul yaa kan mooy ci kaw seen fen yukazibuna soo ne yukazibuna ila soo sooroo kan mooy ci kaw weddi bi nga xamante ne loolu lañ nekk di def wala hum abeya mu ne mu ngi leen a ñeel azabu yankan karo mbëggal bu tar alimu membe dimindi mbëggal boo xamante ne dafa metti yëkkati. des maçons saabula. ci kaw li nga xamante ne. kaanu keda. ñoom nekkoon nañ ci kaw. yu kas di bu nekk kii laa soosu. ñu ngi nekkoon di weddi yonente bi. yàgg di bu ne kawul yaafu. ñu ngi nekkoon di fen. ayata njam. mu ne mooy fukkeel aay bi. wa ila qila nen kumalaa ko. mu ne su leen e, waxkat bi waxee ne. lahum e, naafiqool yan mooy naafixee su leen waxee ne. laa tufsidu alkanaati ñaaroo kii. bu leen yàq. fi ardi bankoto ci kaw suuf bi fi madina saato ka kraati ñaaro keje ci bir madina fi bu len fi yaax xalu na fi kol ka ko ko mu ne len day wax ne innama ala lonko na ngeen xamne yeen ñi di wax ni nahnu tolu ñun ñi ngeen di gis ni musulman tomu de dar la ñun de defar kat lañ ne manket ñaar la ñun neeku ñukuy yaq tànn ki lañ jàpp. mooy fukkee ak benn aaya. ka naafi ko la manqué doon. mu ne ba léegi naafexe yi lay eh, jox màndarga naafi ko tiñaata ka mu ne naafexe moom yàqu na te moom tamit yàq rek lay def. waaw man soo waaye moom nanguwul ne moom yàqu na te nanguwul ne mu ngay yàq. ala tooñaa tooñaa. mu ne ah dëgg dëgg de yàlla. innahum nafiqun ñoom seen bopp mooy naafexe yi hum itol fan fan ñoom si seen bopp de al mufsidun mu tiñaar la ñoom ñoo nekk yàq kat walakin bari waaye ñoom de la yashuruna bi ka sobe kootul mu tiñaar la ñoom de yëgaluñu loolu seen bopp ne ñoom ay yàq kat ay tan na fula ñoom mooy fukk ak be ñaareel aaya wa ida qila ni ko mun kuma la ko su leen waxkat bi waxee ne lahum nafiqun yeen ñoom naafexe su leen waxee ne aminu alison alama yéen gëm leen yàlla. kama i ko comme ñi nga xamante ne. amana naas moolu sonte ñaamee. nit yooyu ñi gëmee yàlla. moolu sonte sonte moo ni daa bee la. de gëm nañ si seen gémmiñ ak seen xol yi yëpp gëm nañ. ali imaan qawlu wa fi'lu ma ne daani moo ni suufu. gëm yàlla de mooy si sa gémmiñ ak si sa xol ak si sa cër yi. xaalu kaafala ñoom dañ leen dee wax ne. ndax ñun dinañ gëm. kama ikko ñaamen comme ñi nga xamante ne ñoom amana sonda ñaamen ñoom ni ñu gëmee asubhaabu kaw yoo mooy ñi nga xamante ne ay dof lañ doo gal saaba kenn loolu moo tax kaw yooneen toolam. non ñoom saaba yi dañ leen ñi nga xamante ne amuñu bopp ay dof lañ. kaam raw lu fanaatee ki tax kilaara kóolu. dañuy téye ne ñoom ñooñu dañ am perdi si yonente bi maanaam dañu ëppal si yonente bi. ni ko Sadaba Aboubacar ñoo ko ko boo si faati. génne ñoom Boubacar dañuy génne seen xaalis bi yëpp pour sarax. pour ñoom loolu yëpp dof la. ni ko keloo maa suñ ne mbiru xeer ñoom Aliou liñ dee def ñoom Omar histoire ñoom pour ñoom loolu yëpp ëppoon la ñii dañ dof rek. ñoom dañuy jàpp ne loolu yëpp dof la. ñoom ñu day pour ñoom duñ mun a yóbbee di diine bi noonu. mu ne yaa dëgg dëgg de. ñii nga xamante ne ñooy naafe xëy. ñoom si seen bopp ñoom. ñoom ñoo nekk ñu ëppal. waaye ñoom si seen bopp de. waaye ñoom xamuñu loolu ne ñoom ay dof lañ xamuñu. ñu ne tamit ay way ëppal lañ ayatan mu ne fukki ak ñett aayal wa idaa laqu llaziina nii ne moolu den daa mu ne bis buñ dajeek ñi nga xamante ne ñooñu dañ gëm amanu mene sonde alama hakka ñi nga xamante ne ñoom dañ gëm yàlla dëgg dëgg gëm xaalu e kaa foo leen ne ko ñoom de dañ leen dee wax ne aman naam fanaa sonde alama ñun tamit gëm nañ yàlla de nga gis ñu won jullit yi na ñoom ay jullit lañ wayda xalaw ni fereta waaye ñoom suñu demee boo demee boor la shayatin kare la shaytanu ñi nga xamante ne ñooy seen seetaane yi wala mo laalehu dañaa toon mooy seen njiitu alyahudi yi ko kaabul ashraf dañaa mel comme kaabul ashraf ñoom nu ñu mel anu wa ak ñu mel ni moom nii nii kaafirol dammaa dañoo suñu weeteeg ñooñu yéefar yooyu noonu xaalu kafa kaafirol dañuy wax yéefar yooyu ne en ñun de maakum naatolu ñun la de ne koy barankaal ne mesi moo lu jële waaye suñu leen waxee na ah ñun de dañ leen dee gis ak jullit yi de atol doon kalma kaafiloo te yéen de yéen ak ñuy wax ne yéen ay e eh, yéefar ngeen e, e ka men jaabi li ñuy tontu ñooñu in namaa laa loon ko yéen daal na ngeen xam ne naxanoon tolo ñunu de mustahzi'un ka jëla walla dañ dee reetaanloo dañ dee mbalak ñooñu mooy dañ leen dee reetaan nga jëla ala ne kilaane misi dañuy reetaan yàlla ak yonent bi ak jullit yooyu nga jëla misi ne ala dañ dee reetaan yëfu pour nga nekk diina dañuy reetaan loolu mbe ne dañ leen dee nax rek isajan si duy fee la ka ko defee ñu mun a ànd ak ñoom dugg si ñoom a seen i juma taree fee la meeting la ñu nekk ak ñoom si place yi ñuy ndaje même bee doon li nekk si ñoom su defee ñun tamit ñuy xam loolu na to le fond waaye ñun ñoo gi yeen la nga ñoo ba to le suñu xol ak suñu xalaat yépp pour yeen la ñoom moom dañ leen di reetaan rek mu ne fukki aaya ak ñenent allahu ala mu ne yàlla de yastahzu aka jele moom tamit dafay daf leen di reetaan bihum ñu lal ñoom yéefari tamit yàlla daf leen di reetaan ala ko mbene ne kan yàlla mu ne man tamit dama leen dee nax ko kan ne dañ ne dañ may nax fana kene man tamit maa ngi leen di ala man kudutu de mu ne fii de ama eh, eh, sifa bii ni mooy melokaan bi du melokaanu yàlla de tawhid ala karo ci wàllu gëm yàlla i bi k'a fɔ ala mu janfantuŋ le mu ne doone yàlla moom daf dee waraate bara ka janfan tun jo ala janfala waaye yàlla dafay fay workat woram yàlla mu tentu mu ne loolu moom dafa mel ni kon lu ñu war a fonk la donc wala fa jéemoo pilele kan eh, bi daf mu bugg a jouer benn plan si sa kaw bàyyi tam mu waroo di yow sëriñ eh, mu jàpp ne yow eewuloo eh, donc jéemoo pile kan foo yaa faa lon yow tamit daal na nga ko pile yëfu ndongo ba moom si boppam mu xam ne yaa ko gën a eew yàlla itam da bandi de. mu su boobaa yow nekkoo bandi. waaye bandi bɛ k'a kii la. waaye bandi de du ko def. la. bu boobaa dañ lay gërëm si. maanaam ala ko n bɛ jëlee la la. la moo tax yàlla tamit mu ne la maa leen di reetaan ñoom tamit. ala b'o kila ñaame. mu yàlla nu mu koy defee. waaye mu mu ne a bɛ lafa. mu yàlla daf leen di yokku. surtout la filoo ko. si seen eh, réer biñ réer yàlla day yokk réeraange boobu. tafal tafal la. su ko defee ñu nekk duñ dem kanam duñ dem ci kaw. ala ne moo courant la ka te mu ne su nit ki xamee ne moom euh, nit ku bon la. aka son tuuboo la la. daf dee euh, nangu pour tuub. kaafiru alon kaa be silon kaa man be daa wala naa tuubi. waaye yéefar bi moom dafa dem boo xam ne moom nekkul si kaw dëgg loolu moo tax mu tuub. ba moo courant be fil la. waaye euh, su fekkee ne nit ku bon dafay réer. dafa kaa la ko. moom du a gis lu bonam pour ne loolu lu bon la. jëlalee tollante mu ne loolu moo tax yàlla ne ñii moom dama leen di reetaan nii rek mu ne loolu mooy fukki aaya ak juróomeel bi ulaayka allaziina wolu leen moolutii mu ne ñooñu ñooy ñooy nit ñi nga xamante ne istaraw dalaade yo filibande a sang dañ jël réer bila maanaam dañ jëndee réer ak jub a jële ay misime a jële mu ne alina kaafiri a taa ay misime a soo xoolee naa fexe dafa gis réer dafa gis tamit islam bi mu ñëw jël eh, réer bàyyi islam staawu dalaate tole fi libante ale tombon ñoom de dañ jël tànd tàndal seen bopp réer dalu fa daye kan dootu ñu ñu pay eh, li nga xamantene mooy jub famara bi hati e eh, man profité man kañ yàlla mu ne ñi gañewuñu de tijaaratul la business. ci seen eh, safaara bi mooy jënd ak jaay bi gañewuñ fa de. Eh, mais la naaful confiance de. ñoom de amuñu seen boppu alal bi booy mun a am sax eh, bénéfice. o maa kaanu e manqué. ñoom nekkuñu tamit. moo tax ñi nga xamante ne way taxe lañu. e mu ne ñooñu taxewuñu. naafu ko man tamit. mu ne naa du jullit. est ce que yow fana hakil mu ne nga bàyyi xel ci loolu. xanaa ko saay boo doon mu naafikooti bul wax ne yenn saxaaba yi naafeexe lañ de saay bente naafiki mu ne amul benn saxaaba boo xamante ne naafeexe la fala naafikool bi saay boo da ngay wax ne am na ay naafeexe si biir saxaaba yi naafikool la mu de be saay ko ay naafeexe lañ ñu ngi si biir saxaaba yi waaye waaye duñ ay saxaaba de bi la ñuy hadisol fond les tombons date mu ne bi nga xamante ne hadis yi commencé nañoo tànd qur'an bi la wa fonto eh, ci kaw ba ci eh, li ko dalee ba ci alquran bi ci boppam kaakafu ñooma pour dajale ko naafeqe daa man duñu naafeqe kuma. mu ne benn naafeqe euh, dugalu si gémmiñam. hadis olu fana. mu ne ci wàllu hadis yi tamit. naafeqe kuma man. amul benn naafeqe boo xamante ne jël nañ kàddoom dugal ko. saa bee man naafeqe. mu ne kon amul benn saxaba bu nekk naafeqe. waaw na bi ka saay boo tamit. mu ne loolu moo tax kenn du ñëw wax euh, ci loolu. naafeqe la taree kono. mu ne naafeqe yi nekk si seen biir. e boolu kuma ñooñu de da leen di wax ne ñoom de ay naafeqe lañ yi nekk si biir saxaaba yi. mu ne. juróom fukki aaya ak juróom bennal bi aaya ko dal ci beneen aaya bi ala be naafiqool misaal la yàlla mu ngay jël misaal di ko teg ci kaw naafexe yi ako mu ne ñoom masaluhum naafiqool misaal mu ne naafexe yi seen misaal ka masalil la dafa mel ne misaal moom da dafa mel ne e, misaalu nit istawqada mais koo xamante ne dafa ut leer leeru safara ala bɛ misaal aw kɔfɛ ka ɲɛ. ne yàlla mooy def misaal de. amoon daa mooy lampe mara. mu ne dafa mel ni nit daal nga taal lampe. suudoo e lay bon kono yela lampo guddi si sa biir néeg nga taal sa lamp salaamatu mu ne bi nga xamante ne a daa ati lampo koy e ndiroon bi nga taalee lamp mu leeral fi nga nekk maa xaw la ko même be lampo dan maanaam fi nga xamante ne mooy sa bërëb bi mu leeral ko bile naa fekkoon ko laa ilaha illallah mu ne bi naa fexee ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah muhammad rasulullah e koo naa da tuuboora ñu ne ne ñoom dañ ñëw pour tuub e lampo ma la ñi taal lamp boobu bile naa fekkiyaata ba nga xamante ne ñoom ñu nekk ay naafexe. yàlla fay lamp bu. beneen lamp bi fayee. bi lamp ala mara fɔlɔ. mooy biñ ko taalee si njëlbeen bi. te woon na faa kɔnɔ. boobu nekkatuloo ci njëriñ boobu de. bi biñ ko fayee. de b'o tɔɔrɔ. Eh, maanaam eh, eh, toroxaangeel e bɛ tɔɔrɔ la ci kaw loolu ngay nekk de. mu ne bi nga xamante ne. falama tuma mel bi nga xamante ne ñoom. a daa daa koyindi leeralee foofu. ma fɛn leeralee li nga xamante ne. aw la ko moo nekk si seen i boor. yàlla ñëw. Yobu yóbbu. bi wala lampo fa. mooy mu fay seen lamp. layla kuma nɔrɔ fa maanaam li nga xamante ne mooy leeru laa ilaha illallah yàlla fay ko ci seen xol. o dara ka hum. yàlla ñëw bàyyi leen. ala yàlla ñëw bàyyi leen. fii zulumaatin di boo kono. si benn lëndëm bu ñu ñëw nekk nit yoo xam ne du ñuy gis. o lamp mala mu ne biñ taalee lamp bi si njël benn. bira faada. biñ ko fayee. te jërë jërë. doomu na tey gis de. wala loolu moo dal naa fi xel. mu ne misaal bi nii la mel rek mu ne eh, eh, fukki ak juróom-ñaareel aaya. summun sonn ma tuloolu mu ne seen nopp yi nga xamante ne moo nekk ci seen xol bi yàlla daf ko jël ma la aayoon ne soro bee jira naafiqolu ñaala ne mu ne de aaya yi nga xamante ne moo wàcc ci madina ci naafiqi mu ne naafi ci kaw naafiqi yépp la wàcc hadis o bee fotee mu ne hadis bi yépp ci seen kaw lañ ko wax summun sono tuloolu teetal mu ne summun mooy seen xolu nopp xol yi dafa toj moo tax dégguñ xamuñu ko bokk moy de nawlu mutata moy tamit dañu muuma seen làmmeñ yi dafa muuma iman toña faatana bo nga xamantene mënu ñoo wax yëfu dëgg bi leen rek ko anoo kaf la ñooma mu ne biñ nekkee di dajale alquran bi naafite ne moom la mu ne amul benn naafexe boo xam ne làmmeñam dugg na bukhari la hadisoolu bukhari hadisami imam muslim hadis imam muslim hadisami hadisa saharam hadisa yi nga xamantene yëpp dafa sax yaa ma kar nañ kar ko dégg nañ ko si diw ak biw ak diw naafite daa moom mu ne bépp amul benn naa fexe bu làmmiñam dugg ci loolu. bokk mooy nawlu mu dara man tooñaa. mu ne dañu muuma boo xamante munuñoo wax benn loo xamante ne dafay nekk dëgg. o ma yoon ñaale finkire sondoma ñaale man kandoo jeex. mu ne gumba nañ tamit seen xol yi gumba nañ boo xamante ne di gis ñu. k'a fɔ la sumun bokk moom omu yoon lu tolo kira mu ne mu mel ni ñoom ñoo nekk sumun bokk moom omu yoon. sax mu óolu mu ne ñooñu si boppam ñi mel melokaan bii. laa yar joonee te mur noo la. ñoom dootuñ mënutee dellu ci kaw li nga xamante ne mooy texe ji. laa ilaa kuma ma yaafaate mu ne laa ilaa illaa wax bi ngay wax noonu du mun a dugg si seen xol yi. dem ay nangu te si laan nañuy la eh, sax rek. amoon daal moo laa njurutoo ni moo kee mu mën a finkintew. mu ne dafa mel ni su nit ki nekkee eh, muuma boo xamante ne dafa gumba. yaron finkin do bike ji mu ne ndax kumba moom eh, du gis mu ne muuma du dee dégg hannaa su fekkee ne sax daf dee eh, gis do mu ne ki nga xamante ne moom dafa gumba moom suy wax sax waaye du dee gis ni ñeen fuloo manku nii eh, yëpp suñ ko jëlee ñaar yëpp ñu teg ko si kenn ci kawam kera nga nekk muuma doo dee mën wax ni ndiyam reetuloo bi kaa moy suñu waxe tamit do de meuna deg yalla nañ ñaa bee la di bo kee no mool ka ñoom moy mu ne su fekkante ne amulo bot mom te muy leundam di nga meuna wax ak nit yi di nga meuna lambante ak nit yi baa nit ñaatee waaye so amul bot ah ni moo doo mën a faham loo ak nit yi de. waaw wala yéen mu ne loolu moo dal naa fexe. kii moo kera mu mun a finkin dool. seen nopp seen xol bi nekk na euh, ku muuma boo xamante ne dafa gumba. laa yar jooju mën noo la. te ñoom dootuñu mun a tee dellu ci kaw yàlla. mu ne eh, fukk ak juróom-ñett. aw ka sayyibin wala misaaloo ka na sanji baa buutee moom. mu ne waaye wala ñoom seen misaal dafa mel ni koo xamante ne taw moo ko laal. moo be wuloo ko soo kuura sanjoo naa. nit ki mu si àll bi bi mu guddee taw ñëw. pour la koronkaya mo silaŋo te mu ne pour nekk ci àll bi loolu ragal raglul na suutoo mu silaŋo te eh, guddi gi tamit raglul na a dibita fana te lëndëm na tamit sanjoo mu silaŋo te mu ne taw tamit raglu la a dibita te lëndëm na amaa kan warata te mbi eh, riiram yi ëpp na a meetale la buŋ te fekku la ci sa néeg te te jaakalta mu ne loolu moom jommal la de jaakale la de ala ko aw kase bi e misaaloo ka mën na sanjoo mu ne yàlla mu ne seen misaal dafa mel ni ki nga xamante ne taw moo ko laal si mën a sama kama sànq. fekk taw bi bàyyeekoo si asamaan si. fii ci boo sañoo. mu ne fekk si taw boobu noonu mu ngi si. zulmaatu dibi jama. waa lëndëm bu rëy moo fa nekkoon. suutoo diboo. mu ne lëndamaay guddi. suutoo wuloo diboo. Eh, maanaam si àll bi tamit lëndamaayam. sànji fi mu wàllu taw bi tamit niir bu lëndëm bi tami si lañ jamaa dibi jama yi abe mu ne mu mel nii ragal bu bari ak tamit lëndëm bu bari moo fa nekk. waraada nañ sànq kiro. mu ne tamit ak xatami mel eh, eh, eh, dënn yi dënn ci kaw asamaan si o balkanin sangara ak yi melaxal ci asamaan si e boo di boo kan sama be kirik abe kumala be ngala mu ne nga nekk ci lëndëm jooju asamaan bi di riir ba pare di melax mu ne kooku nit kooku mu ngi nekk ci lu ak lu de te mu ngi nekk ci jàkkaar bu rëy mu ne dañuy jël tamit def asaabi ahme bulu kondin ko seen baaraami ndaw yi fii aadaan yi tuloolu kono dañ koy dugal ci seen i nopp mina sawaka feton kamma ci kaw li nga xamante ne mooy riir bi ak melax bi mina sawaka ba sankuma mooy lu bàyyeekoo mooy lu bàyyeekoo si riiru asamaan si asaabu loobu laa tuloo ko mu day jël loxom bi dugal ko si nopp bi xasaral mawdu saa yaa silan kamma mooy loolu def ko ngir lan mooy ragal yàlla naafikol fana tata dewrin kiilaa kono mu ne naafexe tamit nii lañ nekkoon ñu ngi am njaaxare ci biir yonente bi sallallahu alaihi wasallam kawan doo kambe sax mu ne bu ne dina wax ne ah, man lay waxal aya kuda aya kuda si asi moom day foog moom la ñuy eh, kii wone ñi moo ɓe dewrin sutoo kono mu ne ki nga xamante ne moo nekk si àll bi nii si nawet bi mu ngi am njaaxare njàkka foofu noonu sikkar ñaanal mu ngi tiit mu ngi am sikk sàkka naafeqoo dara ci la société kon def leen. mu ne naafeqe tamit nii lañ nekkoon si biir société yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ko soxna. mu ne yàlla moo mun a dóor misaal. Eh, misaala ko fi dimbaala. yàlla def na misaal eh, safara. aaya tambilaala. aaya wi nga xamante ne moo paase. ñun doo aaya ko bii daf koo def eh, ci lëndëm. a bee mutata naafeqoo. mu ne lii yëpp naafeqe bi. am na ci wàllam. mu ne yàlla de. muhita bi koorin katil yàlla mu ngi leen a wër ila kaafina kaafira yéefari yàlla daf leen wër ba dajale la ay murule ay yedde te kananoo la maanaam ñoom amuñu fenn foo xam ne mun nañoo rëcc ci yàlla yàlla daf leen a wër bañ da ba mu dajale leen waa be naa fi moo tax mu ngi nekk si waxu naa fi xëpp mu wax ne la ñun naa fi mu ne façon naa fexe yi mel ni yooyu yëpp weddi yàlla la bari xadiis oo ka ki doole fo mu ne waaye xadiis bi nag amna benen nafikh bu mu de wax. Omar ibn faasiq la. mu ne façon nafikh bobu da moy koku faasiq la. ne woon man ko mo balé bu ka ka kafir mu ne lolu sunnit ki amé lolu mom do ko de wax ne ne yéefar la waye da ko de wax faasiq. na be kàccaala ay wul yaa. mu ne su fekkee ne mu ngay waxtan mu fen. ilahi do da kafir wala mu digg ak yow mu wor la. ni jikirara ka soko olo mu daade la ngoy n'a bɛ sɔnkola ka kuma jawra si xulo mu ngay ëppal di wax lu bon mari mu naafiki baade mu ne façon ko naafeexa la de bala naafiki ama ñun doosi waaye naafeexam boobu nak matul beneen naafeexa bi bala naafiki ama qualité la mu ne moo tax kon yëfu naafeexeyaa ñaari qualité la naafiki amee moo kaafiriyaa naafexe boo xamante ne moo weddiloo nit ki wala ñi ci si moy façon bi yaa foodaala koo tuubita nga wax sa gémmiñ ne yow da nga tuub yaaree man tuubi fekk yow tuubuloo peut-être i be kaafidaala kan euh, kon si kaw yéefar nga nekk de ana bi ñu ma kon ba léegi yow yéefar nga naa fi caa ne man moo kaafir mu ne naa fexeyaa boo xam ne euh, def la yéefar olu yaa foo mooy fen laahi di tiñaa euh, wor nit yi si seen li nga diggeek ñoom jikkati ñaa mooy li ñuy yaakaar si yow nga wor leen aaya tan ko mu ne fukk ak juróom ñenenteel aaya aaya ko mu ne beneen aaya yi yakaadul barku sangara soo ka kata mu ne melax bi de daf dee jege a be n sama menkoro sama ka ngala sina du nin sa ngala sida mu ne si nawet bi mu nekk nii dee fekk meraxal bi mu ngay melax yaxtafa ka fa be chance roo ca day bugg a cof li nga xamante ne a mooy seen bët yi même sànq la si rek kanoo yi ñaa bɛ teel la yi ñaa sambana. mu ne su eh, asamaan bi meraxalee da ngay foog ne sax dafa yóbbu sa bët yi. sanjoo même mu da wuloo fana boole misaal foo kan. mu ne taw bi la jàpp si biir àll bi loolu misaal boobu lay def nii de. kullama tuma tuma. mu ne eh, waxtu bu ne. a daa a ni sànq soo koy ndiroo kɛ. su fekkente ne melaxal bi melaxal na ba mu leeral. lam itoliyan ba mu leeral leen ñoom masaw ekatama si la ñu dee dox nag dem fii sangala soxna si biir leeraay boobu noonu nen sangala si tate mu ne su asamaan bi meraxalee ñaari ñaato ji fekk moom gis na li ci kanamam aman denka je fenta ñaar gisul paax gisul dég gisul dara si sim faa kelen fula ko defee mu jël ñaare jéego waaye gaa adulama su yàlla def eh, taw bi lëndëmalee alayhim itolo kan ñoom yéefari ci seen kaw. xaamoo ci loo. su ko defee dañ dee taxaw. même sànq ala si la laa déglu daa si loo a a xaamoo. mu ne su eh, taw bi maanaam meraxal bi su melaxee rek su lëndëm bi kii ñoom dañuy taxaw. amoon na naafiko be teewulendi boo ne fanooti. mu ne dafa mel ni naafiko moom mu ngi am kiitaange diggante lu leer ak lu lëndëm. ba da ngay teewulendi kaafira ne misina la teem. ndax moom mu ngi nekk si eh, eh, diggante yeefariyaa bi ak. Eh, julli ci yaa bi mu ngi si eh. nekk ku ragal julli bi muy def si ginnaaw yonente bi loolu mooy julli ci yaa de mooy yëfër yaa bi nga xamante ne loolu moo nekk si xol bi loolu mooy lëndëm bi munul dem munul taxaw mu ngi nekk seen diggante rek mu ngi am eh, tiitaange si diggante boobu rek ala ko walaw sha allahu naɓeede alay noon mu ne yàlla wax na ne su ko neexoon moom yàlla la zahaba si tandirooke dina den yóbbu de ɗi samaya siituloo fon seen nopp yi duñ dégg o sank moo siituloo tey mooy dégg-dégg eh, eh, eh, riiru asamaan bi waaw bu saara nii ñaafanaa si tey waaw su boobaa tamit dafay yàq seen bët yi tamit sangala soo ñaa ñaatey mooy meraxal bi am noonu su ko defee munoon na yàq seen bët yi naa dee su neexoon yàlla yàlla def loolu. inna mu ne yàlla de. ala kulli ko moom de lépp loo xamante ne. moom yàlla mun la loolu. mu ne loolu moo nekk ñaar fukkeel aaya wala farañi kafu sabola ko mu ne loolu lañu wax ci ñetti jiir yi aya nanan diyam dan limani moon mu ne ñenenti aaya wax na ci ñi gëm yi aya fula diyamuda kaafiroon ñaari aaya yi wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefar yi aya muwoon kono tooma bee diyam da naafiq ñaar fukki aaya yi li ci ëpp yëpp mu ngi wax ci ñi nga xamante ne ñooy naafiq yi o kola ala be mol mu ne ci kaw loolu gannaaw loolu yëpp yàlla mu ngi oo do sooru Bakara kono ci biir sooratu Bakara yaa ayyuhan naasu atul moolu o ya Allah mu ngi oote de ibudu al sibat wa mune yen nit yi na ngeen jaamu yalla rabbakal marwan moy ngeen jaamu sen borom rekomando ke kan tawhid mune mu ngey ote ci tawhid allazi mazona moy yalla ya bi nga xamantene khalaqakum yalla ya dada mo len sak wala dina mo dada mu sak tamit ñeneen en qablukum min arsal bala yen ngeen di ñew la allah fon tamanda tolo dere ci yen tatakuna sisila ngeen doon ñu ragal yalla mune ñaar fukki aya ak ben bennel allah jaatala man sooti mu ne moom mooy yàlla bi nga xam ne jaala e keeroote defal na leen de lakum atoliya defal na leen yéen jaala e deɗaaroote ye allah defar na lakum atoliya defaral na leen al arda banko mooy suuf bi defaral na leen ko firaasan kaa ke feene mu defal leen ko lu ñu lal ma soo mee banko feena yàlla bi nga xamante ne moo lal suuf bi sama ay sante mu def tamit asamaan si dinaa mu doon loo xamante ne lu lu lu nekk lu taxaw la mu ngi taxaw tiim leen wa mu ngi wàccee tamit min asamaan kaba nan santo si kaw eh, eh, ko ci asamaan maa mooy taw ñam moo waado mu ne lii de waxtu bu nekk la bii nga xamante ne adduna bi sos na ba léegi de eh, taw de mus koo fomm de. waaw ah, xëj na nekkul si biir eh, Sénégal fii. waaye mu ngi nekk yeneen bërëb mu ngee taw de. mu ne amaan naa de tey de tawut fii. waaye am na beneen bërëb yoo xamante ne taw bi mu ngi fa. mu ne bi taw bi commencé wàcc. wala aduna bi taxaw de mune waxtu bu neek mu ngay taw fa akhraja ala fen dendir mune yalla ñew geneel len bihi ya li nga xamantene moy sababu ndox bi ñew mune sama te yi jom be yi li nga xamantene moy doomu ay gantax yi ni rizqa wa ki harje mu defal len ko ay wërseuk firen dang mu defal len ko wërseuk lakum atul ya defal len ko ay wërseuk tamamu mu ne euh, taw de wala euh, nawet de lu nekkal na leen dundal kaay. konko bayra. mu ne nekk na luy dàq. xiif nekk na tamit luy wërsëg la nit. mu ne lépp lu ñuy lekk. loolu duñ ko defar dañ koy génnee ci suuf dañ koy jël nga togg ko nga dëbb ko waaye lépp lu ñuy lekk loolu yépp ci suuf lay jóge mu ne suñu ñi euh, liggéey nawetee dëgg dëgg mu ne ah ñàkk dafay génn euh, xiif bi tamit daf dee génn mu ne yàlla nee na lii yépp wërsëg la pour yéen mu ne seen wërsëg la ne tamit def ay garab. min as-samaa'i yurwa fi fa'd. mu ne fekk mu ngi ko jëlee ci asaman ci façon yi garab bu ne. mu ne su ko defé ñaka xaaliss bi genn manam nga am téeméeri garabu mango. do do do bo mu man bo bo do do do kene ne su fekkente ne ben saaku du mango be ben saaku ceeb la da ngay am ñeneen téméré saaku. na fo manam nga am tamit. ay soraas yooyu kajoo sun kene ton nga am tamit kasu eh, kii darkase eh, téeméer darkase wonaa fiifaa wala yu mel noonu mu ne su boobaa xiif bi génn na ak tamit ñàkk am xaalis bi génn mu ne loolu moo tax nag eh, mbay ak gaadini yooyu yëpp njëriñ la ala yàlla dafa wax ñi nga xamante ne ñooy waa makka mu ne jalang bi deful dara de alkana jalabo da lende alaba mu ne bulen jaamu xërëm bi dima jaamu waale fala tajalu alkana kero ke mu ne bulen ma defal ni lillahi alayya di manam dima bokale ak yalla andadan jalam manam ak sen xërëm yi andadan sina wala ngeen koy utal tami ay wujja wa antum watum atulu wa fekk yeen ñi ta'lamuna la yalon li ngeen di def non yenen ko xam ko alaman fulan jang so ne yalla mom amul ñaarel e jalan fɔn la. mu ne ndax xam nga luy xërëm. nin sonko be mu ne xuloo bi nekk nii yëpp si xërëm est ce xam nga ko waaw Abu Jaal ñolu faata la mu ne ba nga xamante ne ñoom Abu Jaal yëpp dee na ngir yëfu xërëm bi annabilaay nuux ñolu jamono mu ne lu ko dalee si ñoom annabilaay nuux ba ñëw ba si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jalaŋ mu ne soo déggee ne xërëm hakkilinde affaire mbaala mum mu ne ñàkk xel dëgg dëgg dëgg mooy yëfu xërëm jalam bat la tee dama tax mu ne ki nga xamante ne jaamukat xërëm la mu jël sémmiñ daa sama daa kono fa mu daal di ndekki ba biiram fees kaabi daa wuloo ko mu ne dafay dem si àll bi kaabi daa yëre seew mu ne dafay dem gor garab ay yëroo jiibe mu xool benn garab yëre fii foo yëre fii maanaam façon garab bu ne ah buloo kun. Euh, mu daal dagg branche bi. ah laa mu ñëw teg ko si boppam. ah naan mu isi ko ba si kër gi. bi laa kon na ko rek. bi mu añee ba noppi. de eh, de eh, noota. mu daal di jël ngas eh, kii bi gasekaay bi. aywa lesen lesen. mu daldi di ko di yett. même bu doo bala mu ne yettkat bi bi li mu yett noonu mu euh, li nga xamante ne daf ko génnee si bi muy yett mu jël loolu taalee ko safara mu ne li nga xamante ne moo des ci li mu yett mu daal di ko am fu mu ko taxawal si kër gi mu ne a lii nag li ma yett nii mooy yàlla mu ne lii moo gën a moo jar ni yàlla lii lañ war a jàmm bàyyi yàlla mu ne su yonante bi nangul lool dina ko xeex ñi ci la ba beek lañuy refu mu ne yëpp xeex bu dee biñ def nii yëpp wala wala benn doj bi boobu noonu wala xeer bi loolu moo tax gaa def wala dala wala yërëm wala benn dee wala benn garab yàlla yàlla ko ñeenti ala de. mu ne waaye xam nga ne lii du yàlla de. eh yiroo même bu loo kundi yiroo. garab gii nga jël nga dagg branche bi loolu garab boobu sax xam nga turam. daa toolaa jàllam ala la ba mu ne léegi nga ñëw léegi nga jël nag garab bi nga tuddee ko. yàlla waaye bi alal lay doon wala fenn foofu. mu loolu fen la waaye lu fen bu ñuul la sax. waa andu adul taalama ala yàlla ko. mu ne waaye te fekk li ngay fen noonu xam nga ne dëgg la. aywa mu ne euh, euh, ñaar fukk ak ñaar ayam. ma ka kaafiroo ko Kuraan man soto mu ne waa Makka de waxoon nañ ne Qur'an amut. mu ne ñoom dañu waxoon ne léeb la. dañ de wax ne ah xalaat la rek. ñu ne way la rek. ñu ne tamit xërëm la. mu ne lii ñuy wax ni seen ah, sëriñ yi suñ seetloo seen yéefar yi sëriñ yi liñ dee digle rek la ala ko in kuntum la keta yàlla na la ok léegi su fekkente ne nekk ngeen fii rey don alibe sikkande fekk yéen nga am sikka min maa soŋto lu bàyyi ci li nga xamante ne na zanna na njël moom laa wàccee ala ab na na jon ka ci kaw suma jaam bi faatu al naatan toog mu ne na ngeen ma indil bi suurate hani soora kene benn soora rek min misile mel ni ko nam lu mel ni comme alquran bi o do wal ootee ten seede yi ñeen doon laa mel manqué alal ñi di yàlla ñeen kon no saadu su fekkente ne nekk ngeen saadu kina tooñaa folaar kay na mooy ñu gëm yàlla saa alquran o sifana mu ne na ngeen may indil façon alquran ndax kilama arab la ndax yàlla eh, yonente bi moom araab la alfanaama arab te yéen tamit arab ngeen albe kurési nga yéen ñëpp waa kurési ngeen alkaakaafa fa yéen yéen ngeen wax ne yonente bi daf ko day wax rek ala bi kaa jëndaaka yàlla wàccewul li ci moom o manqué mu ne loolu jarul mu ñu xeex si loolu naa ko loolu naa jaabi kanam eh, borom xam-xam da ngay tontu boroom xam-xam kato ali fana karan kulona kon legi yenta mi indi len façon jangen du melni ale modi ala seede aso ko fe nit ñi seede len ne atul lañ qur'ana kudo sen li ngeen di jang ni moy ala ma wa fatul la ko yalla waxu dulo de yere ko wax anen kila ata mulunda kila eh, yonente bi eh, nuro nak bu yonente bi walla siara kila ta walla mu upp bu yonente bi en ko do sa na la su fekkante ne yeen nek ngeen de moo mu ànd mu ne mooy ñetteel euh, euh, fukki euh, ñaar fukk ak ñetteel bi su fekkente ne nekk ngeen ñu wax dëgg. fa in lam taf'alu mu ne su fekkente ne defu leen lii. naalima keenoo su ngeen def su ngeen mënul def lii de. bi ah tey. wala taf'alu mu ne du ngeen ko mën a def de. alta keenoo la du ngeen ko mën a def de. fo faw ba faw. noonu too arabe wala Korsa la mu ne arabe yi leen jiitu woon ñoom a lot woon nañ ci loolu de. même bii loolu naa la ko bëgg kafla yokku ànd ak fii faa naati arabe arabe tanam moo leen. jëlee ne xam-xamu bu borom xam-xamu it ñu bëggoon a dajaloo pour indi alquran bu mel nii. karañaa doo fa illam yafalu. mu ne beneen jàngal fa illam yafalu. nee maa keenoo. su ñooñ suñ ko mënul def. wala yafalu. mu ne wala yafalu duñ ko mën a def. fataku nara mune nañ ragal yalla ak ci lan dem bala na ngeen ragal yalla fataku nara ci lan dem bala na ngeen ragal yalla na na ngeen ragal safara ka ko ke membe kanan la dem bala na nga def dara lu lay reccilo fataku nara ala al fan kanan di jahannam mune na ngeen reccilo sen bop safara ala di jahannam mo moy safara bi nga xamantene wa qudu ala malakum moy tale kayam bi an nasu mo nit lay doon wirata bi do la mune ya ngeen dem togu. kàlloo la ñu ne. da ngay ut. wala càmbo. Uh, matt wala xëriñ. wala courant. wala nga ut courant. ne laakira la. mu ne waaye su fekkente ne laakira la. E, jahannama moom uh, taale kaayami. adama doon doon. nit rek lay doon. ak uh, jinne yi. wala hijaaratu. Mm, ak xeer yi. ani ak xeer yi. adama bero mu ne amoon na jëmm jamono xeer dafa oyof comme. wurteen ɓe ɗon en keñooɓe ɓe foyaare waaye fekk suuf ak xeer yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi yomboon maanaam ñu ngi oyofoon ba bi leen ala ko berol bi daa jahannam mu ne waaye ñu ne bi yàlla waxee ne safara bi daal xeer yi dinañ fa dem ko mboɗa foo jarate ñu ne dañ jooy booboo kon duniya beroo bee kumbara fote mu ne xeeru adduna bi yëpp dañ jooy ba wow ala naa taa fo la mu ne yàlla na ñëw wax ne ne man xeer yi may wax mooy xeer xërëm yi wala hijaara ne mu ne ak xeeru xërëm yi o mu ne lool lañ pareel ñeen jahannama jaww loolu lañ pareel loola kaafina kaafirool yéen ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ay yéefar lañ naafikoon leen kaafirool mu ne naa fexe ak ka yéefar yi ñeen mooy safara bu bon bii anañ jalan ak tamit xeer yi euh, xërëm yi bitaawol ñoom ñëpp di foofu lañ dem mu ne ñaar fukk ñeneen quraan mu ne alquran de ah nekk na ay ah, ah, silandi mu ne su la ragal looyee de dina la dina la kontaan loo. ay jahanama la. xoolal wax na ñi nga xamante ne dañuy dem safara. de ci kaw ñi nga xamante ne mooy seen. Eh, ah, wedd bi. mel ñi nga xamante ne tamit ñoo gëm. moom ñooñu fa lañu war a dem. Obasiril yàlla mu ne Obasiril lazina. et na ngeen kontaanloo nit ñi dugg àjjana. amanu. amanu man laata alala amanu amanu men uh, sonda uh, mooy ñi gëm yàlla waa amilu barata ñu daal di jëf jëf a salihati baara kenn doon mooy jëf rafet yi ma ne ko mal ba mooy ñi nga xamante ne dañ def jëf yi rafet an na lax maa boole yéen mu ne ñeel na ñooñu jannaatin arjano mooy ajjana yi kawe yi arjana jamaa ajjana yu bari tajira ka borom bon mu ngay daw si min taatiha arjana ko ronu ajjana bi nga xamante ne al anaaru dalool mooy ay déeg ajjana dalool eh, mu ne déeg ajjana yi il faut ko mu ne ñoom duñ dee jóge si pax de manque booxoloota mu ne nekkul comme forage manque eh, colon nekkul comme ten ate ate daloo ka sele sant mu ne eh, mu déeg boobu daf dee egg ci kaw sele egg ci kaw garab Eh, dina egg sax ci kaw lal. si kaw eh, toogu. lu fekk du tilimal fenn. mu ne façon arjana eh, dégg yu bari yooyu. mu ne am na dégg boo xamante ne lem la. mu am dégg boo xamante ne xër naka sàngara la. nono mu am tamit déeg boo xamante ne sow la. ji daloo ba mu am tami déeg boo xamante ne ndox la. lé léegi naa doon si faa mu ne façon yépp mu fa. kullama tumatum mu ne eh, bépp waxtu bu ne rusku wërsëgee nañ leen mi arjana doon la xarji mu ne bépp waxtu bu ñu leen wërsëgee min ha arjana ñu ci kaw ajjana bi foofu min samanate yëra doom mooy li nga xamante ne mooy doomu garab gi ruskan ci wàllu ci wërsëg bi ni dama roosaan suñ leen yóbbulee lekk ci ajjana xaalu arjana dina kaafala dañ leen dee wax ne hada Eh, ajallade mooy lii mooy li nga xamante ne résiqu moom la ñu wër sëgalee men balaa tey di jot ni yee fewante ja arjana mu ne suñ gisee yenn mbir ci ajjana comme ye arjana maanaam nga gis mango ca ajjana wala lemno wala eh, soraas isaafa nana kay njee duniyaa la de eh, da nga dee wax ne lii de musoon naa ko gis ci àdduna wa utu i kaa dañ leen dee ji def jox bihi arjana diŋol la waaw ñi nga xamante ne ñooy waa arjana yi mutashabihan dama loolu ne mu doon lekk yi nga xamante ne ñoo nuru mu doon dabaya test mam fekk ñu ngi nuroo waaye test yi nuroo ne ko nga duutooje eh, duniya ngaa ji arjana mu ne soo ne damay gis ma eh, liggéey si àdduna ak allahira ni yaa damay baale naa koy manqué leen. soo mu soo gisee mango ne dama eh, dama koy lekk àdduna ak allah waaye soo xoolee dangay xam ne duñ benn. ne bii dama doon dama arjana. mu ne tey soo jëlee lekku tey lekk ko ajjana. bi daa jee kooku noonu dama doon yoola murun. bi nga ko gisee nga ne ha lekk bi de démb bi ma lekkoon façon boobu lañ indi. boobu lañ indi waaw koy naam na mu ne soo ko lekkee da ngay xam ne dëgg dëgg de musuma woon lekk. façon arjana ne ta ñaaw ñaaw lu ma lu dama doon mu ne ajjana lu mu yàgg yàgg naa xam ne bis bu ne. ak façon lekkam. xam ne tool nañ koola mu da dama. su fekkente ne sax tur yi ak couleur yi nuroo nañ. waaye lekk bu bees la. arjana naan domoro domaay naa doma ko teg mu ne euh, doomu aljana de musta lekk ab benn lekk façon lekk boobu mu ñëw lekk be ka domoro koto domo be ka kutam eh, be ka eh, eh, domoro euh, dee mun a lekk lekk bu màgget te ñu dee lekk benn façon lekk lu nga long kutama lay nam na men bis bu nekk nag lekk bu bees rek arjana meeta ñaw ñaw mu ne ajjana lu mu yàgg yàgg arjana lay meew ya ajjana yàggaayam nag ni y'a sanjoo compté banque question. mu ne suñ ko compté ci euh, pépp suuf. sanje kelen banque kese kelen mu ne bépp bu ne at benn at fo banque ne bere kesolee fenw bee banque boo eh, pepp suuf yi jeexal lépp ak eh, pepp yi nga xamante ne mooy gàncax yi o bee be ban na la man ba mu ne loolu yëpp dafay jeex fekk ajjana jeexul arjana mais baaral mu ne ajjana yaagan trop waaw longa loon domar kuta mu ne waaye lekk yi daal waxtu bu ne lekk bu bees bay kuta waxtu bu ne an naa leen konuntaa mu loon su fekkente ne sax utee naag bi nga xamante ne ajana jɔn mu ne mu ngi ñel ñi ngi ci ajana yi. fii ha biir ajana googu noonu. azwaaju musu jama. mooy jigéen yi bare jabar yi bare. moo tax haratomɛni bɛ sɛnɛ. jabar yooyu ñu ngi set. dala duniyaa musoolu mu ne sa jabaru àdduna yi naal dem da arjana su ngeen duggee àjjana alors condommation mu ne loolu lim boobu bariwul waaye musoolu men da arjana mu ne waa àjjana jigéen yi ñu fa jagleel o kondo seeta ba mu ne lim boobu bari na de azwaaj wa mu si jamaale mu ne ñoo ñëpp jigéen yu bari la saxarate be Sénégal te fekk jigéen yooyu ñu ngi set e ñu ñaade Sénégal be Sénégal eh, ñu ngi ñu ngi ah. mu taxarate be Sénégal mu ne ñu ngi set seen aada. wala ima maanaam seen setaay bi mooy dañ laab duñ dee dem wanag. yéen si yàlla am duñ dee dem duñ dee gis mbaaxu jigéen. kamata taata ji. duñ dee dem wanag. sum naata ji. duñ dee def saw. fitness call nun coota ji maanaam di ñandu loolu lépp amu fa daa jëfayte ji te duñ dee tufle tuloo bi ka tulu boo soto mu ne si noppi du am dara noonu boo ma soto li nga xamante ne lu tilim la tara sonkandente ji maanaam doo ñakk-ñakk yi xasaw mu taxale bi sénaaren dono mooy jigéen yooyu moom dañ sell rek dañ set wax mu arjana démro mu ne ñoom aj waa euh, nitu ajjana yi e ni la ñu ñoom ak seen jabar yii e ni démro ak seen doom yi fii arjana kon ñoom si ajjana boobu xaale yi dañ fay bees rek. ñoom dañ fay bees rek. xaali duuna. mu ne xaali duuna. dañ fay nekk rek ba ba faw. ne a arijana denw le ko. mu ne soo waxee waa ajana ne. nen duniyaa bi rek a ba daal bɛ bala jeexle. yaa su aduna bi yëpp jeex da ngeen fay jógee. dañuy a eh, di jooy. waaw fula a dañuy naan ah lum kii yëpp dañuy dafay jeex. waaye arijana mu faw. waaye ajana moom faw de. xadaani rooj waaw ah, di ñaan alama arjana ñaan ñu ut ajjana moo ko naata jaxna bu kenn dem safara biren ki dandi fii mool ba gannaaw biñ nekk ay jullit woo ko su nekk kaafiroon lépp lu lay ñëw def ab ah, yéefar wallahi si jahannam wala mu eh, eh, yóbbu la ci safara bee si mu ne ñun ñëpp nañ oytul ñoom buuñaa korda mu ne eh, kër gi nga xamante ne këru teraanga la bee yow ñun ñëpp nañ ut loolu bee taawatu ñun ñëpp ñu dem foofu alama la wa kem bee mu yàlla yàlla def ñu dem foofu ñun ñëpp nga jahannama la ñu yàlla musal ñu safara yàlla bu ñu jur doomu jahanam eh, yàlla nañu yàlla may ajjana ak suñ doom yi ak suñ jabar yi mu ne suratu bakara aya ñaar fukki aaya ak ci juróom mu ne loolu moo nekk loolu aya aya mu ne beneen aaya yi ala misaaloo kosi mu ne yàlla mu ngay def misaal suusulaan maanaam yoo ombando fiyolu wala ay weñ ombando dundumalaam walla melentaan naam la eh, comme eh, yéen fi message yenn saa yàlla daf dee def misaal yoo xamante ne mbir yi ndaw la kafiro ko mo dalil ko alata alata de qur'an mhm. mu ne loolu yéefare dañ lay wax ne loolu mooy dalil bi nga xamante ne loolu eh, yàlla moomul alquran bi kono nde ala wara ɓaɗa suusula kuma ko ɗaɓala mhm. kuma ɗum tumalan kuma ko ala wara totile ñoom ñune yalla moom ëppna pour de tuddu ay eh, ay yo ay yeneen mbir yi nga xamante ne yooyu yu ndaw la kii la rek kamal laa kan la doon mu ne yàlla kii yonante bi daf koy giñ rek ala ko inna allaha ala de mu ne yàlla de nee na la yastahi a bi ka malo moom de du dee am gàcce wala nin bi ka ala malo yàlla de dara du ko def gàcce ay yadde bay bu saroo ke pour mu daal jël def ab misaal masala misaal maanaam misal mu def misaalam moom du ko loolu du ko gàcce la ay yadde ba masala misaal o kos waaw pour mu def misaal maa ba odara même mun da suusuu la ne sax dafa am lu mel ni fama fawqaha walla suusula fama warata min walla sax loo xamante ne moo gën a rëy yoo moo ko gën a rëy fama fawqaha walla mi warata suusula walla li nga xamante ne moo gën a rëy yoo ala ka misaal ko si suusula la mu ne yàlla dafay jël misaal si yoo a ko si men menoo la day jël misaal si melentaan a ko si siyo la day jël misaal si weñ a ko si samo la day jël misaal si ñay akoñin be kammalu feŋola do ye kamma misalo ko moom daf dee wax ne kii yàlla moom du am benn gàcce ci pour ne dafay jël misaal si lenn si yii bira ala mammala dadaa la mu ne yàlla bi mu amul gàcce pour sàkk la xanaa too amal la pour wax seen tur moom loolu ah lu mu si amee gàcce foo amal la dina bari moo la mu ne waaye ñi nga xamante ne amanu ah, mel la ñoom ñi nga xamante ne gëm nañ ko yàlla mu ne wala yàlla ñoom da xam nañ ne amna mel la rek ila na qur'an ñoom ñi nit nga xamne ñoo gëm yalla ak yonente bi ak qur'an bi fa yalla mo wala yalla na ñoom day xam nañ ne annahu ko misal ko ñom misal bi ni yalla di def al haqqu to yalla lool de deug la e rabbi min ba ma dama loolu moo bàyyee ko ci seen borom yàlla alal kaa fo dëgg la yàlla moo koy wax waaw amal la jën bari moo mu ne waaye nit nga xamante ne ka fara mel ne kaafira kiila ne ko dañu weddi alquran bi ak yonent bi fa yaquluna wala kaa la ko ñoom dañ lay wax ne maaga moom fenn ma e, lan la ban mbir la araada la ala la fita la yàlla bugg bi haaza masalan kay misaal ci misaal yii muy def nii mën a ka ala doon lan moo dugal yàlla muy jël misaal si yooyu. ala ma de de amoon misaal misaal misaal misaal. waxtu bu ne yàlla di wax ne eh, léeboon léppoon wala di def ay misaal. kuran noonu ada kama mel mu ne alquran si làkk bi mu ñëw. arabo ñoom arab lañ asbabu la arab arab wala taran mu ne mu ngi nekk ci jëfinu arab yi rabbi di amol la ndiña ñoom pour tëril seeni waxin ka ñoom dañ dee def ay misal sa sa ko moom fahamu tarik ko defé nga gawa comprendre waxtaan wi xamé fon la di amul ah ci suñuy waxtaan sax ka misal ko moom moy yenn saa dañuy jël misal def ko pour ñu mëna dégg wax xolana la fa naka misalo loolu moo tax yàlla tamit di def misal ba manke ko sabu ala ala ma fo benen kila ko ala ka misalo ke waye nekul ne bi ko yonente bi waxe ne yalla dafay def misal ci la yalla di def misal wa mal la bara molu mu ne waye ñi nga xamantene kafaro men kafirata ñom ñi nga xamantene ñoo weddi fa aqulun wal kafala ko ñom dañ de wax ne ma za mu fenna mu lalla arada la ala la fira menna yalla bugu bi hada masam ci misal yi ni yo jël ka filen di roke mu ne dañ de reeral nit yi de bi ñi misal ñi misal wala ci misaal yi nii. kasiran moo jaamu ñu bare bare lañ dee réerlu. ala hudool man soo ñu diinoo la. mu ne yahudi nanguñu diine bi. kaafirool man soo la. yéefar yi nanguñu diine bi. comme naa ne misaaloo ka kii. ñoom dañuy wax ne lu tax yàlla di def misaal. waaye xam ne ala kan daan diroo cee. waaye yàlla jubal na ay nit. bi si ñun kuranoo la. ci alquran bii la leen jubale. kasiran moo jamaa ñu bare bare ñoo jub lii maanaam mool doon. ñu mu ne kuran bi am na ñum jubal. asaaboo doolu fil da. fekk ñoom am na ñeneen yi yu réer. mu ne waaye amul ñu réer. bi si ñun Qur'an la. ci Qur'an bi. ani misaal la. ak misaal lu dul rek fasiqi. waaw mooy ñi nga xamante ay defkat lu bon lañ. fo al yahudul de. al yi. fo kaafirul de. waaw yéefar yi. fo naafiqoo de. ak waaye Qur'an bi. moo kan moom moom dafay eh, jubloo. mooy ñaar fukk ak juróom ñaar. allazina mu ne nit yi nga xamante ne o fasikol la moluti mooy fasiki ñoy nit yi nga xamante ne yanquduna ahadallahi yanquduna yeti ci ñom dañ day yàq ahadallah alallahi do yalla lim leen digle amen kila allahi ak li nga xamante ne loolu la yalla digal min baade mi saaqihi mi laahi doo do ko gannaaw biñ dëgëralee sen digge yi mol ne alay do doo nit yi digganteeg yoomu zara ala moo da daal moom mooy fi nga xamante ne mooy yoomu zara mooy bi yàlla sàkkee nit yi. alastu bi rabbikum fondera man kaalima mu ne leen alastu bi rabbikum ndax man nekkuma seen borom. kaalu balaa bee ko haa. ñoom ñëpp kaalu balaa ñun ñëpp ne waaw. mbee la ñëpp jëlante yàlla diggee. mbee dama la baatu. ñun ne ko yow rek la ñuy jaam. ala naa da kila moolu kiin kan. yàlla ñëw yónni nit yu yonente yi. ka hakiloo bu la ndoo laahi doo la. pour ñëw nag ah, daal ñuy fàttaliku duñ defanteeg yàlla. allazina ñun la moolti. mu ne ñooy nit yi ñooy nit yi nga xamante ne. yaa ngi ko doon yetti ñaaroo ca. dañ dee yàq. ahadala alallahi doola li nga xamante ne mooy digge bi yàlla min ba demi saka ba mbandoo koola bi nga xamante ne ba dañ ko dëgg garaaw bi ñu ko dëgëralee ba noppi o yaqta una may ka fenga kuntu dañ dee dog ab mbir amara la ala yamarloo loke fekk yalla mu ngay digal pour bihi men na ci mbir bu nga xamantene li mania moy ngeum kat yi ani mbaadiya ak mboko bi ala yamarloo loke yalla digle na de ci lolu ayu salam mool si o pour ñu gi jokk lolu o baadiya no li mania a mu ne suñu mboko bi ak suñu ngeum yalla bi min kafirolo tiya mu ne yonent yéefare ñoo yakalu o yëf si du ne ka tiñaaroo ke dañ de yàq tamit fil arde bankoto ci kaw suuf bi ka banko tiña dañ dee yaata suuf bi eh, eh, walaay ko man ko jaw don kelu ne ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy digle ci eh, anam bu ñaaw fum wolu mu ne nit yooyu al khasiruna ñoom de ñoom ñooy ñu persi wala lu bonata ñooy ñooy nit yi persi aya mo ne fe ñaar fukki aya ak ñett kayfa ñaaju malam mu ne lalla takfuruna albe kafira la ñaadi lan moo tax ngeen di weddi yàlla yéen billahi albe kafira alama ñaadi naka ngeen di weddee yàlla yéen o kuntum o tumaali keta fekk yéen nekkoon ngeen am moo daal mu furoole yéen a ngi nekk euh, nit yi nga xamante ne ay néew lañ moomoo biree ma wulu fekk yéen nit ku ne ba balaa ngay juddu boobu dafa mel ni moom yaa ngi nekk ci. ala ko dara ako kaafi alu bɛ bala nama ñaata. ne yeefare yi ne ma i ma néew maa bee faa koo kɔnɔ. boobu bi yaa ngi nekk man yu si sa e, digg waajur. ɔ oh, kon dɔgɔ tuma la kira amu adam foro la ma. fekk yéen yéen a ngi nekk ab nit ku e, koo xamante ne dafa dee. fa yaa ko ala naata al balo ndaal ba maa ñor ñëw dundal la si seen seen biiru yaay yi. alakira de naa nga ñëw doon ay liir. kara naa ne diɲɛ n'i y'o Eh, ñeneenti weer yàlla dugal ruux si sa yaram. ku lu waroo si beneen ñëw lu da. di ngay ñëw judd nag nga juddwaale ak sa bakkan. yéen ata balu. nga ñëw dund. su ma ko la. si gannaaw loolu nag. yéen miitu ko. mu ñëw rey la. ala yàlla faa. yàlla ñëw rey la. si daal la waroo si. yi nga xamante ne seen waxtu jot. su ma ko la. gannaaw loolu. yuxu yi ko. mu ñëw dundal leen. ala balu kenn dandaa balu wu leen di la. yàlla dina dundal. ne alikiyama loo fi. bi ci bési penc. su ma ko la. mu ne gannaaw loolu. ilahi ala. ci yàlla. turujaanu bala mu daati la kan. ñëpp seen dellukaay foofu la. waaye moo mu ne ñaar fukk ak juróom-ñeneen. wala yàlla la man soo. mu ne yàlla mooy koo xam ne. xalakaay da daaroo ci. leen sàkk de. lakum atol ya. Euh, moo leen sàkkal. xarakaay sa ay mu ne yàlla beesal na leen lakk mu atoliyam beesal na leen yéen ñii maa lépp loo xamante ne jëla ne moo nekk ci kaw suuf bi bi ci wàllu euh, mala yi falen pollination do ak yi ngay gàncax yi alay banko fion be kayan yàlla ñëw da beesal leen bépp loo xamante a bee daatul mool lel yàlla defal leen ko yéen si summa ko la. ganaw loolu yéen istawa ala naatu naa kere kere loo ke yàlla ñëw am si ab mbir la samaay si asama dem si kaw kata de da. pour dem defari asamaan si xamante alay banko la fuloo dadaa dafa mel ni yàlla suuf la njëkk ay banko fion bee hmm subhanallah ala ye bankoo dada mu ne yàlla sàkk suuf bi ay e bankoo fon bee dada mu sàkk lépp loo xamante ne suuf la biraaw beeke ah, bi mu defee loolu ba noppi summa ah, gannaaw loolu o bee koola ah. gannaaw loolu istawa mu ñëw eh, emal naata continuer mu ñëw continuer ila samaay dem si kaw asamaan kata sama de defar asamaan si yaa mbiri a mu ne yàlla defaree dafa ñëw éeg kaw eh, aras ba jàmm be jàmmanke mu ne fii nekkul éeg de dafa mel ni pour continuer dem la biraa bankoo ban de daala le maanaam ñaati sama maanaam bi mu paree defar suuf bi mu continuer dem defari asamaan asamaan fa sawahuna naata sawonte ɗa mu ñëwoon defar nag asamaan si fa sawahuna e sawonten ɓen de mu ñëwoon nag emal len ka ke sabu asamade mu def ko nag juróom ñaari asamaan sabu asamade saw mu ñëw def ko juróom ñaari asamaan nani ɓe tenɗen yoo xamante ne dañ tolloo anen banko ak suuf alon tubabu tubabula moolu ka o banko kamun na kato mu ne eh, ñi nga xamante ne ñooy nitu tubaab yi dañ dee wax ne eh, suuf dafa mel ni comme eh, football wala comme nen. waaye misaal waa même benn daa mu ne waaye misaal bi nga xamante ne moo gën a jekk lépp. gis ko. dafa mel ni comme dafa comme li nga xamante ne mooy li nit ñi de eh, jiwe gerte mooy li ñuy wax disque. Eh, fii mooy li ñuy dugal ci eh, cunuwaar bi nii di ko bayee. ala muru muru be daan patam bi ñaamee. mu ne ni mu nekkee nag flat noonu. a tema huwa fekk nag diggam ne mu ngi am pax samanen ban ko mu ñu warwulo mu ne dafa mel ni nag euh, asamaan bi noonu la mel juróom ñaari asamaan banko ne asamaan bi dafa euh, euh, flat ba pare mu ngi am rond comme o ɓe ñaame ñoo kan mu ne comme loolu nu mel noonu soo jëlee juróom ñaareelam nga nga tegle ko abi wala ñaan mu ne daf mel ni loolu la mel sa sabation de sa waro la même be tembere mu ne juróom ñaar asamaan yi nga xamante ne ñoo tolloo nde ne mbanko fana be tembere mu ne te ñu ngi tolloo asamaan si suuf bi tamit sa fa doon be mbanko fa doon kan sando mu ne li nga xamante ne moo nekk juróom ñaar asamaan yi nekk si kaw ak suuf bi fii la waro ni la patin doon ni la jànfo mu ne seen yaaguwaay ak seen guddaay yëpp ñoo em wa huwa de ala mu ne moom yàlla de kulli shay fon fere den ka de lépp lépp pour defar ko alima ya lon ah yàlla xam na li muy defar de ay de daaro lon yàlla xam na naka lay defar de ay sa de da lon doole la yàlla defar na asamaan bi ban ko fana ana da fon suuf bi tamit ak lépp lu mu di sàkk xam na defar na ko ak ak bu loola ka da affaire nekkul ne yàlla dafay gess rek pour sàkk de nekkete yo da bëjé mu ne am na benn borom métier daa kabar kabar. daf dee kabar kabar rek. fayataa bi a fɛ. ba mu tombé. walaay ko. wala mu ñàkk ko. voilà waaye yàlla moom daf ko xam-xamam la si xam-xam la ko teg. adamadenw ah, dèjà boole ñaama. mu ne bi muy sàkk doomu aadama noonu la mel. da daa fën mu ne li bi mu doon sàkk yeneen xeet yi tamit noonu la mel. moo mu ne ñaar ko juróom ñeneen. aywa mune benen aya aaya dina la histoire ba mune aduna ci si histoire bu gëna reey rëy bi mbemba adama ne malaika te moy digënté mbemba adama ak malaika yi wa izi fi waatoo mira mune na nga xalaat ab waxtu xaala rabbuka mario ko bisa sa borom ne lil malaika de malaika li yeng waxee malaika yi ne inninte ala mune le leen man e, e, ya e, yalla ja ilum be dadaaroo kela maa ngay def defar fil ardi banko bala suuf bi fii fil arde ka ba banko bala maanaam maa e ngay defar joge ko si suuf xalifa dan kalifo benn xalifa laay e teg si kaw suuf bi mbaa de daalaa be bala bankoo la ko sàkk si kaw suuf lay e joge de kalifra be kila joosee la dafay ñëw doon kuy uutu atele be tere banko ka tol de tere mooy nek si kaw suuf bi fii te yéen du ngeen fi ne kaalu malayka le kaay ko ñoom malayka yi wax ne atajalu foo be kéeroo kela ndax da ngay def yow yàlla atajalu foo be dedaar kela ndax yow yalla da ngay defar ab dara fii ha banko kan kaw suuf bi fii. bala kaa sabati ne kan. ndax di nga defar nit si jëlee ko si suuf eh, ko si kaw suuf bi fii. man moo. mais nit koo xam ne. yëf si dama mbétti ñaaroo kii la. xam ne dafay ñëw di yàq. fii ha ban koo kan. ci soo ko fekk mu ngay mooy yàlla. waaye su ko demaa. muy bon na. muy tuur ndox tamit. tooñ eh, deret tamit. abe moolu faala. muy rey nit yi. tooñeroo kan. fekk ci kaw tooñ la. wa nax nun tollu. fekk ñun tamit ñun. loolu malaayka ñun malaayka yi. nu sabbin doo ko subaana lay fo. ñu ngi laa sabbal yow yonante bi. ci yàlla bi xam bi xam ne ka kaane tentoo kafo. ba pare boole ko nag di di ko di la ko sante mbe salle yang ñu ngi lay jullee mbe la yamaro mo tay ñu ngi topp sa ndigle ono kaddi ka sene ke ñu ngi gën a eh, setal san yow sa sa tur yow yàlla la kayte alay yow yàlla nke senandi to sono la setal si sa tur yi rafet yi yow yàlla eben e tol walla ebe adama la kila ji nga ñëw nag nga ñàkkloo ñu pour ñu ta nekk si àdduna bi fi nga indi adam men bi naa kila te ñoo xam ne ñoom di yàq ak tur deret la ñuy xaala koy ko yàlla ne ne inninte man mande yalla alaman tel ɗon ɓata wala ma gana hamde nde min kelanga o lonne man hamnali may def de nde min bala banque o bala adamanga lonne kimay jele si suufbi hamna ko de nde min sibatana ñi banque o kanga lonne kimay e, utulo si kaw suufbi fi hamna ko ma ga kuolon ala kuo to mune hamna lenn ci moom laatalo atolo moolon adamala kuo lu ngen hamul ci adama alaa fo malaika mune yalla wax na loolu malaika yi bare pour ñaaton ko ka kiliŋ moo fuloo tiyema mu ne waaye comme jit moom pour nga jóg si sa diggante ay nit malayka la fay ñoom Bankunta. malayka yi nag bëggoon nañ pour jël euh, suuf bii. ala tomba ko Adama. yàlla tànn ko nag ne euh, Adama. accord de science et examen. kon ma def dantale si seen diggante mooy concours. même kañee ku gagné la. si ko ko ku euh, suuf bi. ay mu doon xam-xam. waaye malayka ndax malayka yi ak yàlla yàgg nañ. ñun doo man fa la. kii moom defaraat ko. ñun dinaa de dara bi moom ñu ngi koy ñëw defar lu muy ñëw xam si ñun. atakile ah, dula jàmm. moom kenn ñun ñu bari. Ah, ñoo xam kilo bu leen di kile ñun su ko defee ñu digalante moom rek. fongna e ngana exam o ke londola fala mako si ay betandoɗa en dan bo ñun ñu ñëw mu passé ñu si exam bi moom kenn ñun ñuy fàttali wante moom mu ñëw ba raw ñu e mais illa ñoom de fooguñu woon loolu yama de ɓe kañela ñoom de foogoon nañu ñoom dinañ gagné sonda examen ñu ñëw daal di nangu pour yàlla def dantale seen diggante ay tan ayata e, e ñetti fukki aya wa allama adama alay mbe mba adama karandi yalla mu ne jàngal ne adama ala asma a toolu la mais bépp tur jàngal na ko mbe mba adama ko laha toobe mu ne tur yëpp xamal na ko ko so fen ne ala dada mu ne lépp loo xamante ne yàlla sàkk na ko a mu men turam lu mu doon ne ala fana tol na ala kiti ak tur yàlla yi lu mu doon ak atte yëpp bi la adama da bi mu sàkkee même adama ay wala ndoo diya moom dafa jël xam-xam a simu ma yola poosé mu ne dafa mel ni de le xam-xamu mémoire yi lañ jël ñu ñu dugal ko poosé ko même ba adama ah, ne men cuuna mu ne lépp loo cuun rek même ba adama wax loolu summa o koola mu ne eh, gannaaw loolu aradahu en aduna daa fon den werenden de nak nag ni koy won eh, eh, mbindee fi yëpp alal malaika de malaaykoolu kan maanaam malaayka yi amanda télévision jibo dafa mel ni comme genre télévision buñ nekk di seetaan ne be télé jiiboo sooy seetaan télévision daa foog ne beekuloo ko. fekk euh, euh, mala yi ñu ngi si àll bi. fi mu ñu ngi leen di wane si tele yi. ñun dara mu mën a. ñii moom ñal la. Eh, ñu mu jàttoo la. lii de gaynde la. min ɗo mo sulwolete bele moom euh, bukki la min ɗo mo ñinati bele mum lele la ye daa toon naati tenne ñu isi rab yi nii ne bindee fi yëpp nii ni cassette men bonne bépp cassette bu ñu indi comme bien ni ba misaal ñun télévision comme tey sooy def misaal bi si télévision tey ne jaroo fi ndindi suñu isee ab gaynde ko malaayka ñu mu mu ne ñu ne malaayka lii moom lan la ha jibril ko maro jibril ne hawma ko kar ko maro kar eh, am kenen ku ne hawma ko adama ñoo mo ne adama li la la ko jaro adama ne ki kay ne la ne yiro fendende ni ise garab tami ñoo mo mo ne ñu ne li mala eh, malaika li la la maro ñu ne xamuñu ko adama ñoo mo ne adama li la la yir kar adama ne garabu tel la do jara tel wa lepp ni lañ ko def ya biitam bemba adama mu ne tey tey tey bemba adama nana da duniya jam ñu ñewon aduna bi fi adadu la ñu ne kara du lati bépp bërëb ata fula mooy tool du wax kenn ne yow noo tudd rek ita ma jumaa lati noo eh, yow yaay kan ay daa fama bee la xam na mbindeef yëpp ne ne e, an be baɗama e jeem eɓi e majeten min mbaɗama comme te suñ gison tey aɓe répondre to ni kon ɗon e ɓodula dina ñu tudd suñ tur ak suñ sant ak suñ jogi aɓe moto commande lamoto toola dina oote oto bi ne oto aɗemola ñin kañi fen ɗo ɗo to munati dina la du musa laaj kene ne lii moom lan la fen fen ɓena aduna ya ɓeyta ndaati lépp luy warono ñëw fii sa aduna bi fii won nañ ko mbe mbaa adama fa qala ala ko adama e ko yàlla ne mbe mbaa adama ne am ako malayka le ko mu ne eh, malayka y e ne am bi تنبئون لن كبار نغن ما خبار بأسماء حول أن ينفون لطولا تروي نغن ما كل خبار دي إن كنا سعدنا ركرا سفاك أنت نيين نكنين سارقا تونا نكنين ني واخ دقك تاسوانا كنا من فانويرك بأن آية قالوا ملايكة لكو قالوا من ملايكة نينن سبحانك سنة رألا من سل نيلنا يالا توبي تما توبي سيكما توب نين توب بسل لا علم لنا لندتن تلبول دي أمنيو بأن حمحم إلا ما ففن لدو رك

ci la gaa yi tar sando salo mu ne yonente bi nee na dem na si kaw asamaan doobu yee nuwa kabar ñenn yi de suñ kabare avec loolu la ñu amat kooku kabar boobu lay nekkee nee ma doo loon daa noor ñenn yi moom suñ taxawee foofu noonu imaama te laaloo ko. mu ne oto bi sax dina yaaku. ndax oto du mun a laal. ne ye pôles loo den koo kon. soo jëlee benn poto pôle samp ko. a bɛ tila la fay nekkee de. wala taa bata la. mu ne kooku moom dafa. yow malaay malaay ko bɛ dɛ. malaay ko bɛ dɛ. mu ne malaay ka noonu la. n'i y'a set. mu ne soo ko takkee. yaaloo ñaame. ni nga ko tegee. noonu la fay nekkee. ne ye kaset min kɛ jee. kaset boo def ci moom. i ye kuma mɛ dun a da. wax bi nga dugal ci moom. woto bala jee. mu wax boobu du génn ci moom. doo lala je beren wax duñ ko ata o ma nola te du ko mën a laal ata tala nola ko mën a wàññi tamit ata la fa no ko mën a yokk tamit malaika be mu ne malaika nii la mel ba adama dem mu ne waaye doomu adama wala hakkilo bireen kooku bireenam ak a asi fen wil tan foofu ñoola mu a jël fukki mbir fukki junni mbir mu wax ko benn yoon. a naa ne laajte bee mi ra na koo xalaatandoo benn. saa ba jaa saa keji. koo génnee fii léegi mu dugal ko. malayka too ñëw mu ne malayka moom. kanaa je moo la ka karoon na malayka de. mu na moom nit mooy gën a jàngal malayka de. malayka la ak da dee la. mu ne malayka boo xam ne jàng na ba mokkal. eh moo la ka karoon na malayka. mu ne malayka yi nit yi ñoo leen dee a mun a jàngale. ni yaa karoon ni la ak da dee dàmmaa. soo jàngalee malayka bi laxdari rek. o doon a bett mu ne moom laxdari rek la xam neman doola faajee soo tegul leneen lu dul la ata fanka fu noonu du mun a yokk boobu adama dama la ka keten mu ne doomu adama nii lay mel yaa karandi soo ko jàngalee ay naa fiyeti mu ñëw ëppale la ko ko maalon yàlla yoo xam wax nañ yàlla yàlla na yàlla tolla loon doon men man dama yow de xam nga ne ñun suñu xam-xam lu doon yow li nga def si ñun ñun xam dama wala ne moo tax ñu woon euh, sant leen pour ñu euh, sàmm nit yi yaa yo moo jamal be dandi malayka o bala mu ne xam nga ne nit yi bari ñu jokk si malayka de ne ko malayka doo ko adama doon la diyaa moo dammaa kanda ñu ne ko suñu waxee na malayka yow eh, waxu doomu aadama bi rek ngay sàmm la diyaamaate te fenn a si loolu. mu ne sa wax moom dootul wàññi dara ci loolu. ba woo koola. waaye gannaaw loolu. ye fɛn fɛn k'a ma la. lépp loo def xamu ko. hali ni ye dante muso ye. mu ne soo netal woon sa bopp. koo b'a jɛ ne la la. ne da nga njaaloog moom. baaw ma kuma kaŋo ndax loolu wax rek la. a bɔra mooy la. mu ne ma loolu lay dégg. ba ni waaye soo defanteeg. a dɔw sɛn kan. moom du ko mun a netali. ni ye dante dɔ la mu ne soo demee si naan sangara nga woo. mu ne ko jaama sanga ayo kuma kama mai mu ne lola malaika bi bara nyo wa kurnan amolo mu ne yi ko ni do londi wa karo la na ñu jël keneen beneen malaika teg ko ci loolu ba malaika bi kan be kenn mu ne waaye malaika bi mu na def lépp de to lakke ko be mu ne ñoom seen mbir ni la nekk adama doon adama doon ko 40 40 daba adama do mo gën a garanti mooy doomu adama malaika ko maalo ah mu ne malaika yi nee nañ xamuñ illa ma fa fon ah lu dul rek. alhamdulilah yàlla nañu. li ñu xamal. kenn nakay de ala. mu ne yow yàlla. an day defar foofu. yow yàlla ci boppam de. ala alimu lool naa yaay aji kuul xam. yaa fɛn yaa gën a xam lépp. ala hakim. ala. est ce que bɛɛ kaa yëpp noo ko war a defee. yee kee yaa xam noo def sa mbir. i nga koy def ci anam bu mu waree. kaa saba ne fɔ. mu ñaar eh, ñaar ak fanweer. examen. mu ne si examen de. safa seba kanne dala yala exemple o ɗoɓe je e ka safi kayitola bala mun am na exemple boo xam dantale boo xam ne da nga koy wax si gémmiñ wala bii nga def ko si kayit ba ɗoɓe je ke ñenen waaye bii moom dañ la dee laaj ngay tontu ñun la exemple seen exemple bi loolu la man ka kayit safooti seen si exemple du binda kayit yana mapol yana ñëw markel mu ne lii moom si kanam ñëpp lay doon xaalaa ko sala yalla mu ne ya adama ta adama yow adama de ambe uhum mu ne ko eh, eh, xibaar leen an uhum malayka la kibar. mu ne ko yow xibaaral yi bi asma ñeen toolu la seen tur yi mu ne tem boo mel na mu ne bi nga xam ne am ba am ay kibaar maanaam xibaar na malaayka yi bi asmaahin toolu la seen tur yi nin fion fen naata mu ne képp ku ñëw adama ko ñinam adama yow eh, wax leen ne nin film doo naata su beneen film ñëwee a ko ñinam mu ne leen lii la ka bee fo lépp wax leen itolu ko man bee même bee loo ñoom li nga xamante ne liñ xamul bono yaa bee fo mu ne léegi ñu ngi leen a wax xaala ala ko malaikole ko mun ne yalla wax na len ne alama akul lakum famma faale bang waxuma leen ne en ni nda ala man yalla alam nga mel lon adama xam dara ci adam alam tel lon mbata lima ma xam de man mi ma xam gayba sama de san kullo eh, li nga xam de lu nëbbu ci asman wala arda ne banko kullo lu nëbbu ci wa alam wa alam ma nga fel lon muna hamna abdara tubudun ale men banke ngeen nek di woné o ma nga fengolon waaye xam naa tamit leneen kontuma alketa keta yeen li ngeen nek nekk taktumun ale men li ngeen don denc yeb xamna ala kamé no nga de li ngeen don denc xamna naa san saba nin saba mu ne ñaat ñet téma ñet fuk ak ñet way di ci wato ci ma wato na mu ne nga xalat ab waxtu kul nante adama ko man yàlla de kul nante ala ko nte eh, man yalla mané sa sa mo banda mu ne examen bi jeex na léegi de adama la adama moo gañee all correct ah. ataa bee moom lépp la am si eh, all correct biraa bee bi mu amee lépp yamen lay teema bi liñ teg seen eh, diggante men kañeeta koo xamante ne su gañee mbaa di la walla kooku lañ koy jox wala ñun duniyaa bankoo eh, mu ne mooy suuf aduna bi wala maa man sayaate mu ne mooy buur yaa bi fii ina da de adama ah, ñu ñëw jox adama cër yooyu ci aajo karam na dina noonu. mu ne ñi nga xamante ne ñooy jàngkat daara yi. tubaab karam ne arab karam. mooy ñiy jàng jàng school wala jàng arab. c' est que tubaab karam noonu. wala ñi nga xamante ne sax ñooy jàng. mu naan mu naan daal ka examen moo kii. mu ne lan moo tax ngeen di def dantale wala examen. wala si kayit bi doo sodo bang. ngeen ko doon def ndax da ngeen koy def pour am kayit bu baax. ala bee den da Sénégal la jàng. yéen ñëpp yéen a bokk Sénégal ji. domaine quarante. kon ku jàng. ila kayitoo bee daal. sa jàng eh, kayit bi baax. est-ce que place beetoo a. waaw nañ la jox place bu baax. ça même temps man eh, ki nga xamante ne bosam baaxul. naa maa soro. su nekk moom paasu. ah te mu tënk ko. a du mun a eh, bileem kenn. ñun doole kayita daa tama kata. kii de moo jéem waaye moom jéemut. ka karam kewala kan. noonu lañ dee jàngee. Adama Fara ne Malayka wala hmm, mu ne Adama ak Malayka yi seen diggante. même kañ ki gagné. e boñaadi o a la ñuy jox cër janni ɓe ɓan ko la balaa ñu koy jox suuf bi e koye fuloole e fandiyaa ñu ne léegi yéen sob juulan ngeen jox ko seen bopp yaa buuña ngeen gërëm ko ormal ko way waatoo mira ne nga xalaat bés kul nante ala ko moom yàlla mu wax ne malayka de malayka le eh, wax ne malayka yi ne o sujudaal si sujudoo ke na ngeen sujoodal le adama adama ya adama ngeen sujoodal ko fa sajadu ñoom ñëpp sujood nañ e bee sujudta ñoom ñëpp sujood nañ illa iblisa eh, ba ludul rek. te Iblisa te Iblisa dama. Iblisa dara Iblisa rek. Aba. abalanta moom eh, weddi na wastakbara fa war añ na boppam wa kaana kera nekk na tamit mu nekk na kaafiroon eh, mooy ñi nga xamante ne ñooy aju weddi yi iblis a doon malayka la mu ne iblis moom léegi malayka la wala jinne doolu ko jinoo doolu ko malayka ñenn yi nee nañ waaye mel na ko malayka o ñenn ñi wax ne malayka la ñenn ñi ne jinne la walla daliloo jang mu ne ñi wax ne moom ne malayka la ko iblis a malayka la ne moom malayka la moom iblis seen dalil ko malayka la sujjóot maa fa jinaa ñu ne dañ wax ne malayka yi sujjóot leen te wax ñu ne jinne yi sujjóot leen naa man ke malayka la daa mu ne kon su nekkul woon malayka moom yoonam nekku si wax na ko iblis a malayka moo tax ñenn wax ne kii iblis a malayka biraa kaafiriyaa Mm-hmm. mu ne bi mu weddee. o dum ala yelema daa kira seetaane. moo si lay ëlbatiku mu doon seetaane. surun setan ka baba mune sila setan yi nak di di joge ko ba adama don nañ jinoome ala yi da mune waye adama adri doomu adama ak yi nga xamantene jinne yi la yalla sak ñen jinaaw la ben fe jang mune jinne yi nga xamantene ñoo fi nek ni legi ñen kon kon ni yere ni tabanta ni bala fi ak suñu tabay fi ane ka dum musol la nek yow la tammi di danal digeeli ni iblis sawar mune iblis faasa na ñoo ñu def ñu wol de categorie mo ñu ñu ben rek ala fi ma siate mune sen guddu fanam faasa na malaika puwaro la bala mune mom fuwa malaika la am muna malaika sima ya mune tami amna gudu fanu malaika bari malaika o katinya way malaika da de yako wali o katinya no wali tami de je yako annabi o malaika katinya eh yonante rek ñoo dul iblisa malaika la ti iblisa malaika la abada jenni la kono manam dafa joge ko si jin malaika kabila do le to modi manam dafa am ben malaika bo am wala marta wala marta wala marta arjana la wala ñoom ñoo yore mbiru àjjana. a demoon malaaka si xanaa moom dafa mel ni si eh, malaaka yooyu la mu bàyyi ko. illa iblisa fa iblisa. mu ne lu dul rek iblisa. abaata balanta si moom dafa bañ de pour sujood. istakbara fa wara. moom dafa réel boppam. wa kaana iblisa kenn. te iblisa nekk na. mu ne la moom de bu si la ka yéefar. mu eh, tan sabani naan. mu ne fanweer ak ñeneen. suratu bakara. suratu bakara. wa nante ala ko. Mm, moom yàlla nee yaa Adama ite Adama. yow Adama. tonisi sabati. Nangas eh, e base. an ta a ah, yow adama ci boppam o zawju ko ni la muso ak sa jabar aljana da aljana kono ak ci aljana o kula al fo fi do morok yeen ñaari ngeen lekk nag minha aljana ci biir aljana bi foofu ragala sone wa ah, ci lu gën a yombee al fo fi do morok jang ngeen lekk yeen ñaar haysu daawada fépp fo fu mu ne ci dum al fo la fi da yeen nu ngeen ko buggee rek wala takra ba al fo kana kada bu leen jegee yeen ñaar hadi sajata ni yiro la garab bi ni bu leen ko jegee de fatakuna al fo su ko defee yéen ñaar ngeen nekk. min azaalimiina ngeen doon tooñkat. saay du ndako do ko mané légui ñu ngi ni dugg nañ ci benen bi bi adama kañe da malaika mané bi adama gagné malaika yi ala naat na fa sabara aljana mané yalla ñew wax ko né légui da ngay dess aljana nga aljana yalla mu fodda bala aljana bi fu non ñu defral ko jawaram ala karakul laban do manam faram bu mujjé bi ala na hawati mané moy kofu moy na hawa alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam akoy flo do aljana mané ñom ñaar nañ dugg ka bu ñaak jaanen do mara dugg aljana ñi ñu lekk fa am fa gërmande ba alala lon dootoo waaye si xam-xamu yàlla inde du du labonte du bii du mujjantal dugg ajjana de yàlla ni moo balutaa faata dunda arjana mu ne nit su duggee eh, dund ba dugg ajjana bu du fa dee kii de ba men dara jee kon doon dir waaye ku dem nuyu ju ak eh, dem xool yi ku fi bonoo jee kooku de mun na faa jógee comme kii laa ñu ma comme yonente bi sallallahu alayhi wasallam arjana kon doon di rool la demoon na pour nuyu ji ajjana maa moo tax mu ñëw annabla idrissa fana annabla idris je la mm-hmm. an abla idrissa mona an abla idrissa adara arjana kondondirola arjana dem nuyoji foofu ɓata kaɓe tulaje waye moom mune dafay des foofu ena arata tuje moom ñëw bàyyi ko ɓaatala baluwo kele ala bato ke defoon na dundam ba pare jaamu si yàlla bara annabi adama mu ne waaye annabi adama wala doon arjana kooku dugam arjana funan kondondirol loolu tamit nuyoo la woon rek anen buñandiroo ak tamit fekk ñu ngi ko doon ormal anaye fuñandi njeb ak tamit mu noppalu foofu tuuti bàyyi koo kila ɓankola kam lii si kaw suuf bi fii la amee. malaayika la di am ak dabanko ko. malaayika bi ñuy waxtaan ak ñoom. mbéy moo def dante la si kaw suuf la am. mbéy moo sabati dabanko kan. mu ne la dama leen di eh, eh, nekkal fii si suuf. ana doon ak doomam yëpp. n'o fële da arjana. kooku su njëkkee si arjana. i b'a dɔn laban bɛ kɛ banko. da ngay xam ne de ah mujjantalem kay lu mu yàggee dafay ñëwaat. o dɔn mo foñandun bilal. kon dafa nekkoon foofu noppalu. bari jee bɛ di ala de. mu ne waaye foofu dina nee de. ka jee nene ye bɔ jee. mu ne pour eh, ñam foofu. ko daal fa. ni nga sonda ko musobe sonna ne ndax su eh, góor gi nangoo waaye ndax jigéen bi dina nangu. te sonna bu la ji. mu ne nangoo jóge foofu de. adamadenya kan. mu ne ci wàllu mbiru aadama ya. ka ka ñam diima ne ne kaatu. mu lu neex lu neex buñ ñam. ba pare bàyyi ko noonu. kana duma doo ba yàlla. ñëwoon nag nekk koo xamante ne ba doola ngay ñëw doon. non foo foo si bojjee de. te ñoom foog ñu jóge fa de. ala naa da saa booti. yàlla ñëw eh, defar ab sabab. ko ala ka bor tooku yàlla la. ñu ne yàlla daf dee daw pour bu a deram. a ka ko saabu suku la. waaw ndax yàlla dafay jël mbir def ko ngir mbir. a ko saa bee dama a ko ni yow damaa de bete ala. mu ne leen su o kulaal fulasi dama mu la yéen ñaar ngeen lekk. min ha aljana. si biir aljana bi foofu. raaka daan sonné ak kon. waaw nu mu gën a yombee rek. xëy na si itam alfula la ko gën a buggee tamit ngeen defee kon. wala takraba alfula kana kan. waaye nag bu leen jege yéen ñaar bu leen leen jege garab gi haadihi sajara yiroo la garab gi bu leen ko jege de yiroo ñi iman kam ben tooñuma la mu ne garab gi nag gars yi amuñu ittifaak si ne ban façon garab la garab yi yiroo la mu doon mu ne waaye garab la boo xamante ne daf leen doon testé rek naal karata la mu ne su ngeen ko jegee fata kun alfuloo sikkee yéen ñaar di ngeen ñëw nekk alsilaba mina zalima fantooñee laate nekk ñoo xamante ne ñuy tooñ seen bopp mina zalima fantoora laa ngeen di nekk ñuy ñëw lor seen bopp tan sa wa na ko mu ne ne fanweer ak juróom-benn. fa azallahuma seytaanu. seytaanu. karañaa fa azallahuma. fa azallahuma seytaanu seytaanu ye fuloo tarabatindi. mu ne seytaane ñëw ëlbati leen ñoom ñaar. a ye fuloo fintindi. mu ñëw génnee leen ñoom ñaar. an haka ba arjana. ci biir arjana jooju. a ye trompendi. mu ñëw trompé loola mistake loola. an ha arjana. ci biir arjana jooju. bi laa ye dundi yiroo do moom. bi mu leen dugalee ci pour ñu lekk garab. fa axrajahuma a ye fuloo bondi. mu ñëw génnee leen si ajana googu nimma kaba feŋo kono ci biir foo xamante ne foofu lañ nekkoon kaanay fuloo tarta ñoom ñaar fiñ nekkoon fiihi men kono eh, ci mbir biñ nekk ɓe neemoo men kono maanaam ngënal biñ nekkoon ay bon mu ñëw génnee leen fa o qul nante ala ko mu ne mu ñëw wax leen ne ihbitu albee si jii na ngeen wàcc yéen ñëpp kabana arjanoo ko pour génne ñëw gé jógee ko si ajjana baa jokoon al doolu yéen kenn ku ne ci keneen le baa den doolu yéen ci kaw keneen adúmọ̀ àti kìnyàn jà wọ́n. ìyẹn ń dọ́n àìnọ́n. adama alamuso ak jabaram nahawa nahawa iblis iblis ko beji ñoom ñëpp ñu ne nañ waaj alfika ñoo jawti ngeen doon eh, ñu non ngeen nono anen sa eh, muna ak janta bi ba adunda sale la mu ne ndax bi mu doon dem aljana wala dem eh, dafa duggu jaan bi wala dunde de aljana ko mu ne jaan bi moko yobu ci aljana adama kan adama fo adama yiro do bo adama mun lek garab ji nahawa la fo la yaa na nahawa mo njëkk lek garab ji ah kunu mu wanna ko ko adama ko mun adama ne ka fitala ah li amul ben problème afulan da don ko man man de lekana am mo ben problème e fana do yo tamit lekal ay yede on dia mu daali lekal garab bi da do mo bi ko lekke ay nene mu ñam yana ka kuno kan ko muy koy wanna ñu fot ko ya mu da kan ñu fot loko ala ka mu ne du ñinto ñu ko lan mo la dugal ci li akay hawa mu ne ko hawa a ko ayen be hawa busala mu ne ko dinaa yar hawa yaarub fula la ñaari yar a naa diŋolu ak doomam yi janni laa keeteem balaa alaxira di ñëw ala yiroo kunoo konoo kono eh, bi mu wannee garab googu noonu si biiram kar kar weer bu ne. waaye yéen a si yàlla dina gis mbaax. ah naa demaloo. ak doomam yëpp. dama dem mosoo la. ñi nga xam ne ñooy jigéen. rek ñoom ñëpp dinañ gis. wala période. ñoom ñëpp loolu la. mu ne suñuy jël tamit biir. que kebataate. ah dañuy nekk di jafe-jafe. la. dañuy ñëw juru tamit. si ma ñun tɔn. si wàllu eh, pour eh, indi ëmb bi. parce que kole mu ne yëpp dina jafele. yéeroo dama kan. Eh, ci léegi dañ wax ne Adama Adama génn. xanaa xawa ne Iblisa. ak xawa ak Iblisa. naa ak euh, pour ñëw si kaw suuf bi. ɔ oh, ko nan ko. mu ne yàlla mu ne leen. ibiru alisi ji. na ngeen wàcce de. baa dugg al doolu. Euh, yéen kenn si yéen. li baa den doolu ye. kaw keneen. a dun bɛɛ kɛra jama. ngeen nekkal leen ay ay noon. wala kum. mu ne dina leen nekkal. a baalu ye. dina leen nekkal. fil ardi. ci kaw suuf. bankoto. ci kaw suuf. mustaqarrun. mooy fi. Euh, sabati dula. fi ngeen di nekk. saa alibira sabati la. banko la yéen daal fi ngeen di nekk daal mooy ci kaw suuf omataun ak albee balu la banko la kan foofu ngeen di dundee tamit ilaahin ah. balaa kenn ku ci di dee amanda sa adama fila be jii mu ne dafa mel ni léegi adama mu ngi nii di gé wàcc kana sabari banko pour ñëw nekkal si kaw suuf ana la musoo naa denwolu bi ak jabaram ak ay doomam yëpp be ñoo wulun wulun na jàng dinañ fi jurante bee la jàng dinañ fi dundee fo moo la sayaaro waaw bo ku nekk sa waxtu dee ni men naa da aljana avec aljana la ja misi ne a koo xamante ne da nga ñëw ut fi aljana si be turu islam ni fare si da aljana soo dee moom aljana rek ngay jëm kafiriya soo ñëwee tamit nga doon ku weddi no faada soo deewee wasda jahanna ah alhamdulillah nga dafa dem jahanna wono eh, adama jirana mu ne loolu moo tax adama ñëw waay bale nga bay waaye biñ na ko waa dàq nañ ko omo man mu ne loolu ah nekkul lu neex de omo kuma kuma de men ku yaada mu ne wax la boo xamante ne wax bu naxari la woon ro kula kila men ku yaada alay ko dafa mel ni dafa am lu am lu naxari yàlla wono adama naa dinaa tuubi mu ne adama nag si la ñëw tuub ala yërëm de moo la mu kaw bi lekkee ay tànk ak mu ne euh, fanweer ak juróom benn fatalaqa aadamu mais adama na da beñoo yaaro ke adama ñëw daje daje eh, def bopam pour mu ak yalla min rabbi ka ba ala bulu baye ko ci boromam ko tuube kuma jama waaw ci kaw ay wax yu bari yo xamantene pour delloo bopam ci yalla adama ye kuma jama ta ala bulu adama dafa jël wax bu bari ci boromam fataba tu fataaba la ala ala la tuubam léegi yalla ci la ko jigal bakaram karañaa do be fatalaqa adama min rabbi kalimaatun fatalaqa adama anata adama ka kan mu ne da benen jàngit bi moy dafa ñewal adama. mi rabbi ka ba ala bolo li baye ko ci boromam kalimatun tubi kuma jama ay wax yu bari waxu tubi ni bari bi tubi kuma lu fo ne bi mu waxee tubi ni yooyu fataaba alayhi mu ko defee mu tuba mu jaba e, mu nangul ko ol ol la ala la tuba mu ta ci sabab yoy nak yalla nangul ko bodo o kalma o kalma wala hanbe ne mo yawo fo mune façon kalma yoy be legi su ko nit waxe ila jun ɓe kuuto ah si sa walu bakar ala ba mu dalal yalla dina ko nangu innahu ala mune yalla de huwata ala mom yalla ci bopam at-tawabu boppam a tawabum tuubi mutala baala maati nangu eh, baak eh, tub la de ne men dana tambe fekkente ne lu da nga oppol ar arrahima hena man salamati maati moom tamit daf de yeram nit de bila ila tubu mu day ma faaw kan bi mu nangoo sa tub de fekk deewoo ci kaw lolu aya tan sona warola hmm, mu ne ah, eh, fanweer ak juróom ñaar kul kul naan da ala ko moom yàlla mu nen ihbitu alfiji na ngeen wàcc ba léegi de min ha kaba arjana jógee ko si ajjana jami albe yen ñëpp adama ne hawa ne ani saa mu adama ak hawa ak jaan bi ani iblisa ak iblisa ani kunoo ɗo ko fanama saa boode kandi wuto kandi wuto jamba duudu o nekk na sababu bee jiite na. waaw ñooñu ñëpp ñu wàcc. jamiya al bee muumee la. ñoom ñëpp dañu wàcc. fa imma yatiyannakum mu ne leen mu ne su bis bu ñëwee si kaw seen kaw. men ne kabande ala bulu. bàyyi ko si seen borom. ko daan kando. texe. <coughs> ta alfil albi da addu malabe wulula ji albe balu albe fara ja nin dino na ta alkan mune yanan ni di dam su di fadunde di fadewe waye su dina bi ñewé san kaw fo man tabe mo men bulata kep ko xamantene top nga o da ya na kando no ma suma tahe bi fala khafun silante amulo ben ragal alayhi wa mulukan ci kaw ñi nit yoyu wala muy takela te ñoñu non duñu nek hazan na sunu laati no xamantene dañuy am naxar tan sabane sey mune ñe fanwer ak juroom rajanni lakiatam adama adamadenwa kira misilima de ite dawla lafiya ta sunu la bo allah kira da képp koo xamante ne nga julit a do dugg ci ñoo xamante dañuy reccu e kera annabiyom annabiyom la mantode nga nekk bépp bépp annabiyom nga doon ñoom dina annabi nuuh la fa annabi lay ko dalee ci annabi lay nuuh bo annabi lay aada eh, eh, eh, tonni muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina moolu men nu ak ñi ñi ci nga ne ñooñu noonu aaya tan sawana seeko mu ne ñetti aaya walladina yi nga xamante ne kafaro kafira alam ñoo weddi tamit aaya yàlla yi ulaika ummul mu ne ci yooyu ashabu nar wona jahannam ñooy ñooy ñooñu jahannama ko mu wolo mu ne ñooñu sax fiha jahannam ñoom eh, si ajjana boobu eh, eh, jahannama boobu xaalidina ba daama ñoom foofu la ñuy def ete fala ɓe tila jahannam fa de ɗum fa dundu tansan en comment mu ne fanweer ak juróom ya bani israil to bani cankolu o wa bani israila atol tubabol yen tubabi juusoɗo juusi odu ko alsifen kon do ake nangen sabal nimatin nan nemol germande yalla di allati nemoma ya, germande bo xamne ana am do nga nemoma lol la def ci sen alay fon atole sen kaw wa awfu al sitte mande o ken matal de bi ahdina lahi do moy ndigle yalla yi o fen sitte mande o ken dafa yalla tamit eh, matal len bi ahdu fa lahi do la li nga xamantene lol la lu ngeen digge ak mom wa yaaya nda ala fon fon eh, eh, fekkana mom yalla ci bopam farhabun al sitte mande su fek mune pour ngeen ragal ko nga do mentali yang mune lima jilen jelen al sun digle alisa muhammadu ma mu ne ngeen topp yonante bi ale yara koo koy ngeen leeral mbiram naa yoo laahi doo muta mu ne su ngeen jëlee e, e, ndigle boobu mu fanaa yaa laahi de arjana dina ah, la man tamit dig naa leen ne arjana ngeen duggude wa yaa yoo doon de kon man yàlla far xabonaa si silam na ngeen na ngeen ma ragal yi ale kii laa la koo itam ndimool ngeen wone nit ñi yonan mbiru yonante bi ale ngeen nangul ko naan ñeneen fukkeel aaya. ba sooru Bakara. ñu ngi nekk sorotu Bakara ba léegi de. waa Amine Alfison. mu ne na ngeen nangu. bi maa fond la. bi lenn. anzaltu alay min jinn. moom yàlla li mu wàccee. wala ñu ko anoot. mooy alquran bi de. Alfison ama. na ngeen ko nangoo jubree mel naat. Jibril ak kitaabam ak Jibril bi mu indi. Kéelaatan. ci kaw yonente bi. musaddiqan aka roke rooke dëggal li nga xamante ne li ma aka kiraaboo tooñaandi moom dafay dëggal téere nam nan baatolu fee li nekk seen diggante fi ñin Qur'an o mu ne alquran bii ay tawraata tooñaandi ah, dëggal na tawraat ay ay injil tooñaandi dëggal na injil wala takunu mu ne bu leen nekk atul ale hudol sa nekk bu leen nekk awala kafirin Eh, eh, Kafir folooti bu njël benn kuy weddi balan naa foloo mooy kiy weddi njëkk bisi kiilaala mbiru yonente bi naatul tubaabulu balanta kiilaala tubaabi su ngeen weddee yonente ala balanta qur'an wala ngeen weddi alquran ala balanta misime ala weddi diine bi molta son nit ñi duñ gëm de tubaab la man son wax ne yi noonu muñu wala tastaru mu ne bu leen ala kana sandi rooke bu leen jënd de wala tastaru bu leen jënd ala kana falen di rooke bi ayati na ayola sama aye samanan koɗo ala ɓurɗi koye jogii qalilan koɗen ndi jogii ndaw arabolu ah, muna arabi Côte d'Ivoire Kaffrine dañuy dañuy dajale xaalis. Maka Mazakonda. Maka seen nguur. Abu Jahl ñëw la. boobu waa Abu Jahl. yàlla hudul wala ñu oo waa yahudi yi. yaa de tubaaboo. ñu jox leen tubaab ñu jox tubaab yi xaalis. te ko ne Mouhamed Beye ñëw ñu ne ñu ne Mouhamed ñu ngi nekk problème de. man la la man soo te nanguwuñu nanguwuñu ko. du na ko du naa doon balaa kalama. to suñu mbir àdduna bi yëpp a koy yëg. naa doon tubaaboo la sonn même. Eh, su ngeen yéen tubaab yi ku ngeen eh, yi fenda même ngeen ki ngeen weddi nag. mool kabalaama nit yi kooku la ñuy wedd. naal fenda Mouhamed la ko wala de. su ngeen dëggalee eh, Mouhamed de. ak ak loolu ba batandi la. maanaam de eh, xeex bi dinañu ja jafe. nte wiin nag. duñ ko mën a wiin. ba naadul balanda. waaye yéen su ngeen bañee. mbenkut laa la. su ko defee ñun dinañ ko. ala yi ko din na. pour mu nangu xaalis bi. tooñaa maa de tooñaa daa eh, mu ne mu doon dëgg fekk nekkul dëgg. ah atul ah na ngeen bañ rek. ko may ɓe duggu kamɓe waaw fekk ñu ngi leen doon dugg ɓeɗe yowmuta ɗoron biñ jëlee loolu ba noppi ko atole ɓe keso kan kilata kese kan ñamatole mum ñune len a yene nekk si kaw dëgg yonente bi nekkul si kaw dëgg ala ala ko wala tastaro ala kana sandiro ke yàlla leen bu leen jënd de yéen ñii bi ayati na qur'anu mooy suma aaya yi bu leen ko jënd samanan kodi la ci njëg yoo xamante ne kalilan kodi ne njëg yu ndaw la hanna tan ko kodi baala muy tefee su fekkente ne sa xaas bu bari la ala ala yaa nen diina la kuliya wala kodi yàlla ak diina bi nu mu diis gisee loolu njëg bu ndaw la. wa iyyaaya ala fonfon. ne man yàlla ci boppam de. fatakuna si seen. fatakuna na ngeen ma ragal. ayata naa ne mu ne eh, aaya ñeneen fukki ak benn. oto dina karan naa bee. mu ne jànkat tuba eh, jànkat diina yéen ñëpp. ustaasi afan. ustaasi afan. moo kana moo kana kuranoo ta e ka kodoom rek ka diinoo yelema daal. bu leen jël alquran di jël eh, xaalis di yëkkati di ëlbati diine yàlla bi. ya xaalis soo jotee xadisoo xool. ko defee nga gis xaalis te mu ne bu leen def loolu. wala talbisu hmm. alhaqal kana toña ñaami bu leen jël dëgg ngeen euh, boole ko bil batil bataro ak loo xamante ne basar la baaxu ala kana fane anen nya du ñu mol buru ñu bu leen jël dëgg ak fen ngeen jaxase ko kanam ni o taktum alhaqal kana nya nu ngeen ñëw nag bi nëbbu luy dëgg ji wala muhammad kila mooy ki nga xamante ne mooy yonente bi ala kana kila la ko nu mooy mbiru yonente bi tamit bu ko nëbbu adula al yahudol yeen waa al wa antum atulu fek yen ñi ta taalam ala kira yéen a ngi xam yonent bi bu baax a baax ba yaata la looy dengo ti ndax moom lañ gën a xam ni seen doom yi yaa dafa na kama yaa dafa ya kila lon ba kila ñoom ni ñu xamee seen doom yonent bi xamewuñ ko seen doom oto ko doomu da arabol bol yaa fa kila manke kila mooti kon buñ jël xaalis yi gaay di wax ne yonent bi nekkul ab yonent tan na nekkul ñeneen fukki ak eh, ñaar bi wala la ayala eh, moom mu ne tay aya bu mujj bi wa qimu sadal si salo loon bi yalla mu ne na ngeen taxawal julli tu zakala le jakkooti ngeen gene sani asaka alaka saloo ka waatu la ale aka ñaam ale jakkooti mu ne ngeen di julli eh, ci waxtum di julli ci nu mu waree jakko jakko ñaan na bula men mu ne zaka tamit ci li mu war a génne yëpp naa na di la ñaan ak ñi mu war a niñ ko war a war kaw al si sali mu ne war kaw na ngeen julli maa raakeen sali la ma rafiina ànd ak ñiy julli non to jaa non to diinoo. mu ne bu njëkk ba diina bi. kelen sala bi kamuta. boobu benn julli du nangu de. bee ka sali coo jolle. waaw soo jullee yow kenn sa julli du nangu. ani ani ani la badu bu wala seen bërëbu. bari bari kiilaamantol taa. waaye ñi nga xamante ne ñoo ñoo yokkee ñoo nekk ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam. kelen saloo kamutale. waaw benn nit su jullee rek moom jullam dina nangu. bari jamaa salo fi saa daal mooy. waaye nag ngëneel bu fa nekk mooy su julli mbooloo. jamaa salo. mbooloo mo sunno le la aniŋ kanu ko kon de eh, julle bi ci mbooloo sunna la te tamit luñ sopp la aniŋ fisamante a bayindo ak tamit am na ngërmande ba eh, naa man ke jumoo te ndax su nekkul eh, waxtu juma jumoo de ni ni jamaa moo sala kilim bi ko sam mu ne juma de su ko mbooloo julliwul noonu yow yow kenn mo salaatu lu looy kilim soo sam waaye juróomi waxtu julle juróomi yow jama jama la baraajoo si yàlla Eh, ndax mbooloo moo ëpp tiyaabu. war ka waa les salma raakina sallale. mu ne ngeen julli ànd ak julli kat. ayatan naan ne sax. Eh, eh, ñeneen fukki aaya ak ñett. tamit wala bi mu ne tey dafa mel ni loolu moo nekk darsu tey bi. ka baraka ñu naan kii arabu wala ne ka adadi sunkaro. mu ne di ut barke si alarba bi ak tamit si weeru koor bi. oto moo ka bee kontoon. mu ne kon di nuyu ñëpp. amee fo man den kolen bol fo kay yela mo mu ne li ñu wax soose yi loolu la ñuy wax ñi nga xamante ne ñooy eh, laakukat yi kala honen kalandiroo nañ jàng ak jàngale ustaasi sëriñ mu ne ku nekk ustaas woo nekk sëriñ ala nga kala honen kalandiroo nañ jàng ñu jàngale si yoo si xeet bu ne la moolu karande na ngeen jàngal seen nit yi karam bi kan fo wala bo mu ne jàng doo ko de lu dul toujours ngay jàng wala di jàngale ni jamono moolu ma karan mu ne jamono bii nit ñi jànguñu de ustaas sëriñ moolu te karan mu ustaas sëriñ ni si jànguñu diinoo man faa baa man ta taakan mu ne diina bi de deewu de waaye nekkul di dem lon doo ma lon doo be faakan de mu ne bi de moom mu ngee dee de i e ba la na men na ko man karan se sirin mun li ñuy xamne jangulo ustaz sirin haral ni dara kira wa fi dara man ka sino to ka kira bol wa fi dana so deme fi ñi jaaye téré ni isa e ye kontena jende kira bu ni kira man kile da ngay ci ko xamantene dañ wacce container téré container bu ne kitabu du sa se sirin o kontena jama yete kira bu jella karan mu ne yow sirin bi wala yow ustaz bi yow conteneur téere yu bari yooyu yëpp conteneur yow ñaata téere nga jàng si yooyu. ete siyoro kitaaba kelen fula yaa konte ye jelle karan. yow si sa at bi bi nga li nga dund yëpp ñaata téere nga jàng si loolu. ñeen kitaaba jamaa bɛ joro mi rek. téere yu bari yëpp ñu ngi joor de. b'a dɔn na man karan. kon da ngay si ngay xam ne ni ñuy jàng. o kitaaba jamaa ye jelle karandi. téere yu bari yooyu yëpp ñaata téere nga jàngale. ete mul karandi jelle la. yow ñaata nit nga jàngal. b'a wala ko karandi ta kɛ. ko ne si loolu ngay xam ne ni jàng de amut. ñoo bee daal waaw di ñaan ñëpp man de nga kayyelama soose ak euh, olof ala nga karandira ak bépp làkk na ngeen jàng mi sanji tan naanoo karaŋo bota kuu naani ye moo ne mu ne ñeneen fukki at yi nii passé jàng de génn na waaye ñeneen ci daal nax nañ kon de karante de mu du jàng de kon de karan noo loolu du jàng kilen ko ana kulo tanko eh, moy am bokk na ci pour mokal altira alquran bi ko do men ka bo karan ko ko tanko mune tay xalis bi gene rek pour nit ki mokal alquran man de nga kayelam ci walu ñi nga so soosa lañ wala ko wala wala ye di no kan de ko ana kay kayatan nga jangal nit ki Eh, alquran fukki at ngana ko tare ya bula jamin sanje tallu la man kira do ka man ka nga bay ko fek bala ñuy wax juróom fukki at munul jàng munul jàngale din no tatu wa karala tatu wa do ko ta mecce wala ta business wala eh, nit ki dem si métier bi wala mu dem eh, jàng tubaab wala dem business alon karante kere mu ne kon léegi da ngay gis ne jàng amul wonde karante loolu du jàng de fulan jam mu ne ñaareel bi arab kan fo mooy làkk arab ka koronto ka arab kan fo ñooy teen teelaj lakk arab kara non te mu ne lolou du mom jang de arab mom mo arab o doron ne mu ne arab bi nga xamantene mom arab rek la ni fimo ma ni sin te fek julli fona ma kara e kara e arab kam mo ya ke kara nala te bang est ce koku su fekente ne jangul mom mu ne lakk arab lol ndax lol def nako jang kat ani sa ban jang ak ñettel bi soko la soko sa Mm, mooy di di di jàng wala di def ay bayit di bind ay bayit o fana da karan noo mu ne loolu tamit du jàng de don bii mu yëpp tey sono na nit ci karan be noo la ñaamee mu ne jàng daal ni muy ni ñu koy munee karan bi mooy jàng da daani roo cala mu a mu ngay ñaan ñi ustaas ak sëriñ ustaas ak sëriñ ala nga karan ah, ñu jàngale mm. ah voilà allah fi ba kaw sax baaraam. ba kaw sax baaraam. wax la waaw sax ba kaw si jërëjëf. ñëpp wax la ba kaw si jërëjëf. jërëjëf walambi walaati ne loolu mooy darsu tey bi sa ke man denka kaw ne sura kaw pour def ko si soose ak wolof euh, kono to diya kan ka yaramulo waaw pour tamit euh, di gën a yombalal nit yi pour ñi nga xamante ne ñooy làkkat yi ne forum o ben bolo majlis forum ani islam forum mu ne tamit am nañ majlis forum ak islamic forum ak kitaabal man kan da tallulu si téere yi fa jàngalee ëpp na juróom fukk hadisa wi rek na si hadis yi fa nekk ëpp na téeméeru junni qur'an o fasara fu dafa si ñaa jàngal eh, tafsir nañ fa alquran lo ëpp ñaari yoon be ndo ka kan na soro bi ni mom dañ koy def pour ñu jotale ko kan wala mol be ci tala ji buru su ko defé eh, ñeneen ñi nga xamantene ñoy lam sa ni ñene kam mol dem de forum ota ñi duggal nit ñi ci forum bi la ñoo kay yela mol ken mbokk ñi nga xamantene xam nañ leen ci olof fa baro fo yé du defé ñu wax leen xibaar yi on oh, bande wala fonction forum wala ñom eh, mu doon forum bokom fa edu ñoo ñene bu le ka odie ki ji ko defé nak ñuy duggal eh, Euh, audio yooyu si loolu. mbee si den Qur'an la. ba defee ñun ñëpp ñu bokk alquran. mbee taa si kañoo de. ñun ñëpp ñu moomoon moomowante. duwaa taalibe. mu ne mu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp. son karaw mën na duwaa ka jaab amal na duwaa jaab mu ne euh, ñaan bi nga xamante ne suñu ñaan dee nangu si weeru ko yal na yàlla nangu suñu ñaan. mbee eh, eh, eh, la dunaa bee di. yal na yàlla neexal suñu àdduna ñun ñëpp. londe janfa londe yoro bi buy bari te yaatu ndela fila mena mo be kan mune mom de lim bugu de moy ñepp nañ jang kama mol be tuba mo be dina ka ñepp janga diine sa si sina be karan do mune usta seri ñepp dal nañ jang man den ka kayel ma be karan do mune limuy wax sosé ora ko nañ jang maji sonu moro bonu wele bon le be karan do ah, majilis ak neegu serigne yi ak neegu usta yépp nañ ñepp jang jang jàngale. karam dara kanam wala karam. mu je jàngale daal mooy tax nit mu ngi jàng. laa ko baax kaw jërëjëf. mu ne nañ wax baax kaw jërëjëf. waaw ko wala ko. jërëjëf jërëjëf. waaw dama miiraam baax kaw foofu naa bi machine bi. mu ne miiraam baax kaw foofu naa ko jàppal si machine bi. waaw dama Omar Kolo foofu naa bi na soxla. maanaam Omar foofu di ko tarajuma. jaa di wax yaaya kamara. si jaati bi mooy yaaya kamara Dakar. waaw dama Gambia Sénégal bee yàlla kon. Gambia Sénégal ñëpp nuyu nañu leen. bee duwaree duwaa ñu naa la mu wax. ñëpp ñu ngi ñaanal te ñu ngi sàkk. ne forum wala may laaj. ñëpp ñi ngi ñoo xam ne ñooy déglu. allah si a albela Duwaga ba si jaay. ñëpp ni ngeen bare nii seen ñaan bi yàlla nangu ko. amiin alhamdulilah mu a amiin ñeen na ko yàlla nangu.